bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa man wala jërëjëf sëñ imam ñu ngi ziare mbokk yi fi teew yëpp di jiital ci ziare boobu nag ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi di borom barab bi di Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo yilif Tuuba gépp yilif murid yëpp nga xamante ne si ñoo ngi ñaan ñu ngi ñaan yàlla kon mu yàggal ko fi bu baax a baax te wéral ginnaaw loolu ñu ci sëñ abe jaar sëñ imaam jaar rek sëñ imaam ñang di siyaare bu baax a baax mbokk yi nga xamante ne si ñooy taxawal yu am solo yi muy daayira Muqaddamatul Xidma nga xam ne bu ñu ci tuddee sëñ Afiya Buso mi nga xamante ne si moo ko jiite rek mënees naa teg nuyoo bi ci loxoom mu jottali li koy mbooleem moom mi moom mi ko jiite ba ka ca gën a ñëw ak doom doom ba tànn ci saa yi gannaaw loolu nag comme ni ngeen ko xamee rek ak ni ko sëñ imam waxee tey jii liñ fas yéene waxtaanee ak ni mu ko leerale mooy tomb boo xamante ne ci bu am solo la lool ci lislaam ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dikkee ba tey lu am solo la lool ba lislaam taxawee ba tey biir bi ñuy at yi am yépp ak ñeent téeméer ak nàngam solom muy yitte jum am maanaam ci di ko defal ak jullit ak di ko def ci ñu dut ay jullit sax te def ci biir askan bi yëpp loolu jëleetu ta laaj kon moo tax tomb la boo xamante ni si xaj na daanaka gaaw dugg ci rek moom mooy baax ndax boo ko defee liñ ci bëgg a leeral la ko su ñeewu xaj na mu xaj ci waxtu wi insha allahu taala waaye li ci am solo mooy comme sëñ imam wax na ko léegi jàkka moom suñ ko waxee rek daanaka ci gën a néew xam-xam buñ ko laajoon lan mooy njariñ li mu am ci lislaam yaakaar naa ne mën na koo xam te du jot mu doon koo xamante ne si sax xaj na ku bari xam-xam la wala ku jàng la waxuma la nga suñu maam yi kon waaye buñ ko doon xamle ci xamle bu gàtt moom jàkka daanaka xawees naa mën a wax ne mooy léppi lislaam moom jàkka mooy léppi lislaam li ko waral ni ñuy dégg ñu ne xam-xam yi ñu daan dégg yépp ci lislaam mooy xam-xamu naxwu bu njëkk dafa duggoon doon doon xam-xam boo xamante ne si dafa beru xam-xamu tasawu doon doon loo xam ne daa beru ak xam-xame lislaam yëpp amul benn boo xamante ni si dafa beru woon daal di jëm ne lépp daa doonoon benn nga xam ne dañoo dem ba yàgg ñu dugg arab tàmbalee dugg ci diine lislaam bi bu ñu làkk arab bi juum ak yu demee noonu loolu daal di tax Seydina Ali yi daal di santaane ñu daal di am kum féetale wàll googu noonu ne ko demal demal féete woowu foofu ngir bind ci ngir ñi nga xamante ni si dañoo bees te namtuñ làngu arab àddina bu ñuy wax mën nañuy def ay yàq ak yu demee noonu naxu daal di beru loolu am matière usul fiq yi ci nit ñi man naa wax ne comme ni ñu koy wax naan al imam Saafi yi moo ko créé ci biir islam maanaam xaj na dañuy wax rek te fànnin mustaqil maanaam mu doon fànn goo xamante ne si bu beroo waaye ñoom it ñu ngi jëlewaat ci fiq rek ak yéeg lépp ca lañ ko jëlewaat loolu yi mën nga koo wax ci yeneen matière yépp ci l'islam lépp benn la woon ba ci école bi ñu nekk nga xamante ne si moom la ñu wax tasawuf nga xamante ne si moom ci la sëñ Tuba sosé tariqatul murid yi ku ne xam ne ne ci lislaam la bokk mooy ñetteelu ponk lislaam li ko tax a beru lu dara loolu rek bi nga xamante ne si dem nañ ba islam doole ji bari mu mujj doon état ak yu demee noonu wala nguur nit ñi di gën a bëgg àddina dëgg àddina di gën a sori ak nat bakkan ak yu demee noonu ca la amee ñu jóg rek daal ne wàll gi ci lislaam la woon ñoom tàmbali daal ne nit ñi dañoo bëgg àddina tàmbali di ko yittewoo ci seen dundin ak ci seen i wax ak ci seen i jëf ak lépp moom it mu daan doon école boo xamante ne si far na beru loolu nag dama cee misaal yu gàtt yooyu rek ngir loolu yooyu taxuñoo jóg mbir mi noonu la demee ci jàkka jàkka mooy lépp lislaam noonu yooyu daal di sosoo ba doon ay école yi doon école yoo xamante ne si ci wàllu gëm-gëm la yi doon école yoo xamante ne si ci wàllu fànnu xam-xam la te lépp doonoon benn nga xam ne bu njëkk daawuñu ko seetlu nit daana laaj arab te du xam lu ma fon lu bi ji boo xam lan mooy doon faen te du yàq nit daana way te du jàng ilmul arud ba tey ba tey nit daana doon ummi sax mën a mokkal ay diwaan yu bëree baree bëri comme di mokkal ay sonra u jaahili yi ak yu demee noonu ànd ak loolu lépp dem nañ ba matière boobu daal di bëri ñu di ko wax ëdëb ak yu demee noonu kon loolu rek la bëgg a leeral ne loolu boo ko xamee rek li ma wax ne jàkka moo doonoon lépp lislaam it loolu dana leer li ma wax ne mooy lépp lislaam mënees naa wax ne jàkka moo doonoon fi nga xamante ni si fa la ñuy dajee si lépp loo xamante ni si dafa jëm ci dundinu maanaam askan wi ci boppam lépp loo xamante ni si dafa jëmoon ci politique ci biir jàkka la départ lépp loo xamante ni si dafa jëmoon ci wàllu koom-koomu doomu aadama yi ci jàkka la départ départ lépp loo xamante ni si dafa jëm ci wàllu xam-xam ci jàkka la départ nga xam ne suñ ci doon misaal tey rek mënees naa joxe ne fi ne li ñuy wax université tey nga xamante ne si ñëpp ñu jàng ñu baree bari ci la ñuy jàngee ñu naan ñi- ci wolof ñu naan ko daara yu mag yi loolu lépp jàkka yi moo ko jur ndax tey boo seetee jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masjidu rasul sallallahu alayhi wa sallam maanaam dafa taxawoon taxawaayu université moo génne saxaaba yi nga xamante ne si ay fuqahaa am nañ ci ñoom ay xubaat li ay attekat am nañ ci ñoom ay faradiyun am nañ ci ñoom ba mu àgg ay mufassirun ak yeneen ak yeneen ak yeneen jàkk yooyu ci lañ génne mënees naa wax loolu noonu tey boo seetee saxaaba yi nga xamante ne si dañoo duggoon ci biir lislaam ci biir gox yi Afrique yi ak ak ak fépp ci àddina bi di def li ñu naan ay ubbeem wala ay futuuxaat ñu ñëpp da nga gis ne li ñu baji baji xam-xam ak lislaam bi ñu taxawal ak la ci juddoo ci ay borom xam-xam ci anam yëpp moo xam wàllu falak la wàllu falsafa la ak wàllu bu mu mën a doon rek da nga gis ne ñiñ jàngaloon te jàkka ya dong ñoo mujj léegi daal di tasaare xam-xam boobu borom xam-xam boobu dégg rek li ñuy wax université ci maanaam bi mu amee nii nga xamante ne si moom daa génn ci jàkka ji dem doon fànn wala mbir moo xamante ne si dafa beru loolu boobu amagul ñëpp ci biir jàkka ji lañ jànge woon mën naa ko misaal comme ni ma ko waxee léegi ci masjid rasul sallallahu alayhi wa sallam noonu nga koy waxee ci jaamiam bi nga xamante ne si moo nekkoon fustat nga xamante ne si Amr ibn al-As radiyallahu anhu moom moo ko moo moo bañ ubbee Égypte mu doon fa waali ba moom moo ko taxawaloon noonu ngay waxee ci xayrawaan yi ba fa ko ñoo xaqabatu na naafi demee noonu ma noonu ngay mën a wax ca maanaam ci nisi la bi ko noonu ngay waxee it ba ni ñu wàccee ba ak al maghrib yëpp lislaam jàkk yu mag yi ngay dégg yëpp nga xam ne ñoo mujj doon université yi mën na mën ngaa wax ne masjidu rasul mujj na doon ay université ci maanaam bi ñu ko xamee nii mujj na doon ay université ba tey ci maanaam bi ñu ko xamee ci masjid rasul ci boppam aljaamiu al azhar ku ne xam ne université al azhar bi nga xamante ne si moo nekk Égypte ci jàkkalu jóge xayrawaan ci jàkkalu jóge maanaam jàkkay xayrawaan laa bëgg a wax moo manees naa waxee ne jaamia bi nga xamante ne si moom la ñu wax azaytuna ak yu demee noonu ci la jóge ñi ki noonu jaamia bi nga xam ne mooy alxarawiyin manees naa wax ne ci diggante faas ak yi demee noonu ña saxaaba yoo lool yaroon ñu topp lislaam bi rek ba keroog muy wàcc ndànk ndànk loolu rek moo mujj kon li ma bëgg a wax mooy jàkka moo doonoon lépp tey foo dem fekk fa université rek boo xam ne ci islam la jóge xamal ne ci jàkkale ne woon dañoo toogoon nii rek di jàngale ba jaay fekk yu dem noonu muy xam-xam yu kawee kawee yoo xamante ne si boobu tuddeekul ko université loolu dama koy misaal ci wàllu xam-xam rek ba ñu xam-xam génne léegi doon madda wala jàngukaay mu assasa boo xamante ne si daal mujj beru ñu naan jàkka ja naan jaamia ba ak naan jaamia ba naan maanaam jàkka ja ak université ba loolu it kon jàkk mooy lépp du dara beddi ku wutoon loo gis ci lislaam yi ni ma ko waxee ci politique xare yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan def yëpp jàkk yi di déparé maanaam fa lañ daan diisoo fa lañ daan jàngalee ahkaamul jihaad aaye fa la daan wàcc moom ci boppam sax ba mu demee ba ak almadinatul munawwara ni ngeen ko xamee la mu njëkk a taxawal mooy jàkk néegul yàlla nga xam ne bala ñoo wax ci mbiri këram yooyu ndax booba jàkk ma ne na ko jàkk kër sax kon bu ñu xam ne jàkka ci gàttal mënees naa wax ne jàkka bu ñu ko dee xam ne mooy lépp loolu lépp mooy li ñu waxoon ne rek xam-xam yeeg noonu mu jiitoo woon li lépp dafa doonoon benn suñu demee ba jamono aajo ko nag am bu génn daal di beru ñi koy lim di lim fa mu jógee jàkka noonu rek la def kon muy loo xamante ne sii ba noppi am beneen jagleel boo xamante ne sii am na ko moom jàkka ndax day loo xamante ne sii mbirum sunu borom subhanahu wa taala moom rek moo ko moom waxal ko boppam ci alxuraan waaye ñëpp nangu koy moom dañ koy dugg xool doo fa gis këru kenn daan la comme ni ngeen ko xamee lu fa waaye doon doon kilifa bu ak see ak ñi nga xamante ne si ñoom la yilif moo xam ci àddina la wala ci leneen daanaka mën nga leen a bañ a xàmmee loolu lépp di wane ne néeg bu yàlla la doo fa gis dara lay kenn yi comme ni nga koy gisee ci biir kër yi ak yu demee noonu muy loo xam ne yàlla ci boppam kon moo ko jëlal boppam maanaam féetale ko boppam ne anna al masajid wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada kon jàkka loolu mënees na koo jàpp ko ci tàmbali waxtaan bi waaye ba tey bokk na ci li ñu mën a jàng ci jàkka yi li ma wax léegi ci wàllu dundinu doomu aadama mooy ni ñuy dajee suñuy waxtaan ak suñu biir bi suñu suñu ni ñuy maanaam yéene la suñu biir liñ bokk lu lépp bu jëf ci jàkka la daan déparé mbi al mujtama al islami maanaam société bi yëpp lu daan xew rek jàkka lay déparé loolu nag moo ko jox mu am solo su rëy rëy moom jàkka ci lislaam am ak sell ba nga xam ne mujj mel ne barab boo mën a gis rek ndax moom mooy néegi yàlla yi nga xam ne mooy néegi yàlla am ci kaw suuf ba buñ bëggoon a wax ne daanaka bu fekkonte ne mënees naa wax ne rek mooy néeg bi nga xam ne ci la ñuy dellu ngir jëm ci yàlla bu fekkoon yàlla ma ne sa koo nekkal fenn kon jàkka yi ci boppam mooy barab yooyu noonu ndax yonent bi yeeg awliya yi yeeg yëpp comme ni ñu yëkkati ci biir waxtaane insha allahu taala ci moom lañ déparé jàkka nag di barab boo xamante ne ci ba tey mënees na ko jàkk buum bi nga xamante ne ci moo dox diggante asamaan ak suuf loolu boo ko diggee mooy diggante ak jullit yi ak bindee fi rek mooy barab bi nga xamante ne ci lépp lépp ni ma ko waxee loo gis rek léegi ñu di ko ber dafa ber waaye ci biir jàkka la jóge mooy barab bi nga xamante ne ci lépp loo xamante ne ci dafa dem ci wàllu dafa laab ci wàllu madda ak wàllu maanaa barab boo xamante ne ci buñ demoon ci geneen fànn yi ñu di ko tudde ak ruuxaaniya nga xamante ne ci saytaane yeeg yooyu yëpp du tax ñu ñeme fa comme ñu ngëlee ci ak xadis sañ leen ci kanam léegi yeneen bi ne barab yi yàlla gën a bañ muy marché yi waaye yi mu gën a bëgg ci kaw suuf mooy jàkk yi kon loolu lépp danañ xamal lan mooy solo si nga xamante ne si am na ko suñ ko doon xam ne nag moom dañ naan mooy barab bi nga xamante ne si fa la ñuy sujoote loolu tax ñu tudd ko al masjid ab sujootukaay nga xam ne dañ ko préparé pour julli kese tax nga xam ne bu doon ci langue arabe ñu ngi ci sujoot na buñ ko bëggoon a xam ne nag mooy foo xamante ne si am mbooloo nañ fay liggéey di fa jullee doon mbooloo ngir ci taal ci lislaam bu dee yonent yi njëkk yi loolu yi yàlla jag leen ko jullit ñi ñoom kese ñoo am fu leen neex dal di jullee bu njëkk ña leen jiitu woon ñëpp kenn ku nekk sab jaam mooy ba nga sàkk rek foofa nga soñoon di jullee waaye yonent bi wax na ne ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran mu ne suuf sépp dañ ma ko defal muy jàkk ba noppi doon boo xamante ne si fulaab la waaye téewul nag am na barab yoo xam ne dañ leen a jàpp jàpp di néeg yàlla ñuy jàkk bi ba tey mënees naa jàpp jàkka ci xamle gi jàpp ne mooy barab yi nga xamante ne si dañ koy jullee julli juróom yi nga xam ne suñu borom da koo farataal li tax ñu tudd ko jàkka nag mooy du dara luñ fay lu dul lañ fay sujjootale yàlla kese comme ni ma ko waxee léegi léeg-léegi ñu di ñu di ko tudde moom jàkka jaamia rawatina bu fekkente ne dafa rëy comme ju mel nii bu fekkente ne ajjuma ak bi demee noonu lañ fay julli moom lañ koy faral di tudde jaamia kon diggante jàkka ak jaamia wala masjid ak jaamia mënees naa wax ne am nañ ak xusuus ak umum ndax jàkk ja jumaa joo gis jàkk la waaye nekkul ne jàkk joo gis jumaa la léeg-léeg yi danañ ko wooyee musalla moom ab jullikaay maanaam bañ koy wooyee jàkk masjid ci arab loolu nag dara waralu ko ngir liñ liñ fay jullee ak yu demee noonu léegi nag kon loolu mooy xamle bi ci lu gàtt rek léegi nag ana lan mooy maanaam njariñ li nga xamante ni fii moom jàkk am na ko ci lislaam junj naa ci léegi dara maanaam njëriñ li mu am ci lislaam ak liggéeyam moom jàkka dafa doon loo xamante ne si kenn takk ko ci mbirum jaamu yàlla kese comme ni ñu ko xamee du mbirum julli kese sax maanaam ay woor ak ay jullee yi demee noonu loolu doomu takku ko jóg jàkka waaye ni ma ko waxee léegi jàkka ci boppam bu fekkonte ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan yoroon ba mu demee ba nekk almadinatul munawwara nga xam ne dafa mujj mel ne état wala nguur mënees naa wax ne bu boobaa gouvernement bi fa mu doon basé woo nga xam ne fa la nekkoon moo doon jàkka booba bañ demee ba gouvernement yi di am nag léegi nga xamante ne si maanaam bokkutuñ ak lislaam aw gisin ak fuñ déparé ñoom sax dañuy jàpp ne dañ ko war a teqale lislaam lislaam jëm na le moom mu jëm na le booba lañ doog a tàmbalee tabax daanaka ay dëkkuwaay naan fii la état bi nekk ak yu demee noonu waaye jàkka toll ne temps mas naa doon daanaka buñ ko mënoon a waxee noonu muy pale bi ci boppam ndax lépp lu ñuy def ci jamono ji mu tolloog pale mu tolloog ci mbiri politique ay conseil des ministres yu demee na yëpp booba ci jàkka lañ ko daan defee kon loolu danañ xam ci kanam tuuti ba tey njëriñ yi nga xamante ne si moom jàkka amoon na ni ma ko doon junj léegi rek arme yi maanaam ab yu demee noonu guerre yeeg yëpp futuxaat yi ñu doon waxee léegi yëpp bu ñu koy def ci jàkka yi lañ ko daan waxtaane nga xamante ne si kon dafa mel ne markazun askari la woon maanaam dafa mel ne guerre bi ci boppam wala arme bi boo ko dee xool kon da ngay teg ne benn arsenal la woon boo xamante ne si rek maanaam dencukaay sàndaay noonu ci wet mooy kon ëpp na fu ñu jaamoo yàlla lépp loo xam ne dañ koy taxawal te yàlla kese tax maanaam jàkka moo doonoon fa nga xamante ne si moo doonoon ab malja maanaam comme daan laqtoo lépp loo xamante ni si dafa demoon ci wàllu suñu dundinu bopp ak suñuy mbiri bopp ñu naan ko ak suñu ijtimaa yi jàppal na ci jàkkalañ ko daan jël ci jàkkalañ ko daan lijjantee lépp loo xamante ni si dafa dem ci wàllu politique ak yu demee noonu maanaam doxalinu ni ñuy doxalee suñu biir ak suñuy masaalee suñuy intérêt ak yu demee noonu yëpp ci biir jàkkalañ ko daan waxtaanee ci biir jàkkale loolu la jógee kon jàkka doon na loo xamante ne si lu bari ay rôle yu la bu dee ci rôle bi nga xamante ne si wax naa ko léegi ak dawlu ijtimaa yi mënees naa jàpp ne maanaam daf cee amoon dawlul asaas yi mooy rôle boo xamante ne si bu fondamental la ci askan bi doon ñoo xamante ne si dañoo jàppoo lool maanaam ràmbaloo bañ di teqalikoo yi nga xamante ne si moo leen boole doon loo xamante ne si day gën a dëgër bi ci njëkk mooy farataal dañ fa farataal nit ñi di fa dajee di fa jullee bis bu yàlla sant daanaka juróomi wax te ku ne xam ne ne l'islam ni mu mel ak aadaat yi ñu teg su boobaa dëkkandoo yeeg ñëpp dañu mujj xamante wala ñuy wax ahkaamul jaar maanaam sa dëkkandoo noo war a nekk nekkee ak moom ak yu demee yëpp ca xutba yéen daan def ca jàkka yi fa lañ ko daan waxtaanee ba loo mën a gis muy silatu rahim ak yu demee noonu nga xam ne baaxoo wuñ di ko def ci biir jàkka sax ndax nit ñi duñ dëkk ci biir jàkka yi ci jàkka ci la daan déparé ba tey ndax li ko waral mooy booba ñëpp dañ daan dem di julli ci jàkka ya lu dal mbokk bala la koo kenn wax ca nga koy xamee nga xam ne booba xewutoon ñu jekki-jekki naan diw dara da koo dal ñu naan ana lu ko dal ak kañ la ko dal ak yu demee noonu ndax booba ñëpp ci jàkka la ñu jullee fépp kuñ gis ngay manqué rek dañ lay laajte ca saa sa ana diw ana diw kon loolu jàkk daana ko rôle boobu jàkk daana ko suyee ba tey kon loolu it lu mat a bàyyi xel la fa lañ daan waxtaan yi mbirum jaay ak jënd yi ndax ni ngeen ko xamee ahkaamul bay ak yu demee noonu moom jàkk ba tey droit yi nga xamante ni si képp koo gis nit ñi kenn ku nekk daf koo am suñ booloo nag ba tey mu doon ay droit yoo xamante ni si dañ koy boole ba tey di ko tudd xuququl mujtama ba tey ci jàkk yi lañ ko daan jàng lañ ko daan jàngalee moo xam àq la yoo xam bàyyi da koo am wala doom wala dëkkandoo wala jegeñaale wala yu demee noonu ba tey muy loo xamante ni si nag ba tey doon bi mu doon ab delluwaay ci jullit ñëpp tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan soññee lu bare bare nga ñu ciy ñu cay dem te suñ fay dem ngeen di fa sàkku maanaam fas yéene faa defe loo xamante ni si xaj na bu ñu ko defee woon ci kër yi ci gis gi ci borom xam-xam yi ëpp dana wét muy julli waaye teew suñ ko defee ci jàkkate bu boobaa lay gën gën goo xamante ne si dana mat ñaar fukk ak ak nangam ak juróom nangam kon loolu it lu ma tax xam la ba tey ba tey jàkka doon loo xamante ne si maanaam jullit saa su fa masaana dugg da cay jariñu loolu bu soobee yàlla ci kanam tuuti xaj na des na ko waxtaan ndax nañ ko xamee ci jamono ji daanaka bu ñu waxee jàkka rek xel yi li ñu def mooy koo xam ne dañu julli ba noppi rek tëj ko waaye ni ma ko waxee léegi jàkka ëpp na loolu fuuf lépp loo gis ci jàkka lu jógee ci mbiri lislaam loolu buñ ci doon joxee misaal xaj na bu demee ba ci biir waxtaan wi ba mu mayee ko bañ indi ko ci Sénégal li dañ ci wax fam déparé rek waaye fii ci suñu réew mi ci boppam rek boo xoolee jumaa yi nga xamante ne si at-tariqatul muridiyya ñoo ko tabax nga xam ne bi ci jiitu mooy jumaa ji nga xam ne Sëñ Tuubaa moo ko tabaxal boppam ca njaareem daal fay dundaat ay at fekk lépp da nga gis ne jàkka jooju toll nay temps daanaka nii ma doon misaale jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jàkka yi ca toppaat nañ doon doxee noonu la doon doxee maanaam dem ba nga xamante ni ci lañ fay def ëpp na jaamu yàlla yii ñu xam rek muy jullee ak yu demee noonu kese ëpp ko fuuf loolu it jumaa ji ci topp nga xamante ne si maanaam mooy jumaa ju mag ji di jumaay Tuubaa moom it boo ko dee xool gis nga bañ ko ubbee ba tey rek da ngeen gis ne maanaam mënees naa wax ne tey jii moom it ne jàkka yooyee départ moom la départ ñi fay jullee di fa jàngale xam-xam ay borom xam-xam yu mag génne fa ba ñun ñëpp tey ñu mag ay ñoom seen bopp rek kenn koo ci teg mën a doon ab université boppam mënees naa wax ne jàkk yu njëkk yooyu nañ demee ba jut ay université yi jàkk jumaa ju mag ji noonu la demee ba jut université ndax tey ku tudd université yi nga xamante ne si moom la sëriñ bi di def ci Touba da nga xam ne bu àggee borom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon jàng ci jumaa ji nga xamante ne si bi ñu àggee rek la fi sëñ Fallu tegoon sëñ Alxaaji Mbàkke Jaxate mu fi jàngale njàng mu yàgg ma xam ne ko saxaaba yi daan defe nga xam ne da ngay toog ci suuf di jàng ñooñu ñoo mujj judd di tàmbali 1963 ba tey ñii yoon ay borom xam-xam yu mag yoon ay daara daal di tasaaroo ñii yoon ay majalis noonu la njàng ma di continuer rek ba université bi nga gis daal di judd tey lan loo fi gis fii mën naa ci joxe misaal yu bëree bëri jumaa ji moo ko jur kon loolu it mënees na ko misaal ci loolu waaye xaj na bu ñu demee ba ci kanam tuuti ba ak ci sëñ Tuubaa yi dañ ko dundee moom jàkka xaj na su boobaa loolu dana gën a leer kon jàkka yi bokk na ci rôle yi nga xamante ne si da koy am maanaam rôle di communiquer ak nit ñi moom moo njëkk a tàmbali jokkoo ak nit ñi bu yàgg a yàgg ci niñ ko xamee ci jamono ji njëkk ay micro di amat ak yu demee noonu ak jumtukaayu jokkoo yëpp jàkka moom nekkoon na fi amee taxawaay boobu lu yàgg a yàgg yu ëpp junni at yooyu ñu doo koo sos xaj na mooy waral bu njëkk sax nodd bi buñ bëggee ñëpp di ko dégg ñëpp ñu taxaw ci kaw ngir woote suñ dikkee ba nga xamante ne si jumaa ji lu mu rëy rëy rëy micro amul waaye bokkoon na ci sàkk kii yite mu doon koo xamante ne si day amee sawtuñ baliis maanaam kàddu ku kawe boo xamante ne si la muy wax li jumaa ji xumb xumb ñëpp dañ koy mën a dégg ngir muy jàllale message bi ba tey kon bokkoon na ci rôle yi nga xamante ne si dafa doon li ma wax léegi ne loo gis ci jàkkalu jóge kon tey jii li ñuy wooyee al ajhizatul islamiyya al i'lamiyya maanaam télé yeeg rajo yi nga xamante ne si islam la comme rajo yi wër ci suñu dëkk bii nga xamante ne si ak lu demee ne rajo yi yi jumtukaay yi topp muqaddimatul xidma yëpp nañ jàpp ne ci jàkka la juddoo ba tey ndax la jàkka daan def rek moom la dikk di ko gën a yaatal ak yu demee noonu kon ak tabliix ba tey bokk na ci li nga xamante ne si jàkka doon na joué rôle bu am solo loolu kon doon na télévision comme ni ma ko waxee léegi doon na rajo doon na lépp loo gis ñu ci jàllale ay wax moom jàkka loolu nag doon na loo xamante ni si dafa war di wéy maanaam wër ta taxaw maanaam jàkka yu bari mën nañoo dem ba jënd jamono lañ daan joué ci am loolu day manqué léegi nga xamante ne si léegi dañ koy def jàkka joo xam ne bu ñu julli daal di tëj daal di tijji suñ jullee ba noppi rek daal di tëjaat mu jeex loolu nag jàkka jàkka dëgg-dëgg joo xamante ne si message message ba nga xam ne moom la war a jàllale bu fekkente ne ñëwal jàkka ja xam nañ ko danañ xam ne ëpp na loolu fuuf moo tax kenn ci taabi'un yi wala kenn ci borom xam-xam yu mag yi daf daan wax ne sol na temps suñu jàkk ku fa dugg nee na dafa am ku fa dugg daal di tëdd ñu ne ko eh dugal bul tëdd ndax soo bëggee jàng alquranul karim xalaqa ba rek alquran lañu jàng de xalaqa maanaam mën na ko tudde majalis su fekkente ne li nga bëgg a jàng mooy ilmul xadis kële moo koy jàng de su fekkente ne li nga bëgg a jàng mooy ilmu arrasmu masalan kële moo koy jàng de booba jàkka yi ni ma waxee léegi ne université lañ soo fa duggee tudd waxtu julli la nga gis mooy ay jéew maanaam ab géew bu mag nekk fii ab géew bu ne mag nekk fii noonu la ñuy defee jàkk ji ba mu fees dal ñi ci nekk la ñuy jàngale maanaam booba amee woon na niveau université wala mu ëpp ko sax ndax booba taxasus amut bi ñu la wax ne le lii ngay jàng am licence wala lii ngay jàng am doctorat wala yu demee noonu da ngay jàng rek ba kër ngay bàyyi koo fi dégg ñu koy wax xaafis koo fi dégg ñu koy wax almuhaddis képp koo fi dégg ñu di ko wax alallaama képp koo fi dégg ñu di ko wax faqih amut sax li ñuy wax shahadatul ibtidaaiya mas ta jaar ci école bañ ko jàngal di ko jox shahada yu demee noonu lim am lépp moo xam koo mën a doon xaj na buñ dee wax ay suyuuti yi ak yu demee noonu ngir ñooñ sax am na ñu leen jiitu fuuf ñu mën koo misaale wax naa ko léegi ca sahaaba ya taabiin yi yaag yu demee noonu ak ña ca topp ña ca topp bañ ak ci ñooñu it téere yi ñu fi bàyyi nga xamante ne si néewaa na nga gis kenn nit koo xamante ne si mas na mën na laa wax ne leen liiralal na kenn ci ñooñu lam taalif lépp ngir xam-xam bu bari ànd ak xam-xam bu bari boobu yëpp fi ni nii ci diggante jàkk yi da ko jàngee ay immatu yeeg borom imaam yeeg yu demee noonu kon loolu te loolu sax dafa dem ba weesu xam-xamu diine waaye tey biñ demee ba nga xam ne futuxaat yi nga xam ne jullit ñi def nañ ko topp noonu ma ko doon waxe mu jóge penku ba ak ci sow bi ba ak ci ci géej gi ndox mi yem ba niñ jàddi daal di jàll Europe ba dugal fa xam-xam yoo xamante ne si weesu na xam-xam yi li ñuy woowee al ulumul lugawiya wala ulumul islamiyya aw shar'iyya maanaam yeneen xam-xam yoo xam ne moo xam dafa jëm ci tëbb moo xam dafa jëm ci xisaab moo xam ne yeneen ak yeneen yooyu nga gis yëpp jullit ñi ñoo ko dugaloon waaye amul fenn fu ñu ko jàng fu dul ci jàkk kon loolu yi lu ma ta xam la kon jàkkam maa ngi wax léegi loo gis ci lislaam tam am maslaha islamiya ci jàkkalu jóge doon na lim yu bari waaye kon jàppal ne sax hôpital ak loo mën a gis jàkkalu jóge kon léegi lañ dem ba jamono di ko laaj rek mu génne université bi mu nekk ne génne hôpital bi mu nekk ne génne télévision bi nga xamante ne si ci wàllu lislaam lay wax mu nekk ne génne rajo bi mu nekk ne génne leneen ak leneen comme ñi ma doon tudd léegi mu nekk ne kon loolu it lu ma ta xam la te lu ma ta dellu si lay dëgg la mënisité foofu lépp léegi mu nekk ci jàkka yi waaye nag lu ci nekk war nañoo xam ne léegi nday ja ak fam jóge moo doonoon jàkka ja am ab xaaj boo xamante ne si daf koy tamsil maanaam daf koy représenté si biir jàkka ja comme ni nga koy gisee si jàkka yu mag yëpp madinatu rasul sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne tey boo fa demee da ngay gis xale yu bare bare ñu jàng ci alquranul karim ci mboolem riwaayaat di jàng hadis di jàng mboolem xam-xam yi nga xamante ne si ulumul hadis la di jàng mboolem xam-xam yi nga xamante ne si maanaam ulumul sharia la ak yu demee noonu ba mu àgg kon loolu yi ma des ko delloo si ci jàkka yi waaye alhamdulilahi rabbil alamin comme ni ko misaale léegi suñu jàkka yi nga xamante ne si moo nekk Touba nga xamante ne si moo topp tariqatul muridi ak yii ba tey seen Dakar lu mel ne Masaalikul Jinaan ak yéen noonu defe naa ne gis ngeen rôle yi solo joué ba tey ba fii may waxee yow nga xamante ne si boo xëyee tey jii boo dikkee ci jàkka ji mën ngaa fekk fii sëñ Alxaji Mbàkke Jaxate ak njabootam ñu jàngal la mboolem loo soxla ci lislaam comme nañ ko daan jàngee ci njàng mu njëkk ma bu dee ngoon gee defe naa ne ba ay sëriñ Moustapha Mbaye ak yu demee noonu hafizahumullah ñooñu nga xamante ne si ay borom xam-xam yu mag lañ woon kon jàkka mooy lépp lislaam loolu rek moo tax ma doon indi leeral yu demee noonu ba tey ba tey bokk na ci li ma ta xam nag maanaam barab bi bokk na ci ñetteelu dool bi nga xamante ne si jàkka daana ko suy ci liñ mën a jàpp mooy boo seetee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jëloon jàppe jàppe ko mu mel lu mel ne muy maxarul xukuma maanaam mooy fi nga xamante ne si mooy saxukaay wala siège bi nga xamante ne si ci la gouvernance ba di nekkee maanaam gouvernement foofu la daan nekk loolu it joxe naa ci ay misaal léegi dëgg la nag jàkk rôle bi nga xamante ne si xaj na moom la daan moom la daan joué mi ngi wàññi ko ndànk-ndànk ndax niñ ko détaché yu baree bari ñu génne ko mu dem ci biti waaye teewul nag jàkk yu baree bari ci jàkk cosaan yi maanaam yooyu ñu génne dana am yu ñu fa desal tuuti wane ne kon kon lii fii de cosaanoo ak yu demee noonu loolu mi ngi am ba tey comme ni ma ko misaale ci suñu jàkk yi waaye bokk na ci sikk yi nga xamante ne si jàkk yi xam ne mi ngi koy am mooy bañ génnee yooyu génne boo xamante ne si dañ ko génne ba mu set wicc nga xam ne daal léegi jàkk ji li ko tax a jóg mooy julli kese suñu jullee ba noppi daal di koy tëyaat nga xam ne da ngay dem ba gis ne loolu day feeñ ci imam bi feeñ ci maamum bi ndax duñ doon ci ay borom xam-xam seenu xam-xam du sori dañuy jékki-jékki rek doon ab imam wala ñu jékki-jékki doon ay ay doon ab maamum loolu bokk na ci kon loolu bokk na ci li nga xamante ne si dañ koy jiital tàmbalee ko ci kaw rek xaj na waaye ba loolu di am yëpp gis nañ ne li tax loolu mu mat a delloo ci comme ni ñu koy defee ci jumaay Tuubaa jumaay Masaalikul Jinaan ak jumaa yi nga xamante ne si tariixa bi la topp te doon jumaa yu mag bokk na ci li tax mu mat a delloo ci mooy dañoo gis ne bokk na ci li tax jàkka yi bëreetut ay nit mooy loolu maanaam surtout surtout boo bokkee ci yenn ngir yi ñu ne la boo jullee sa kër julli gi wér na loolu su boobaa ñu baree bari dañuy tàyyi léegi def ci kër yi doon te xam nañ ne jullee ci jàkka ja moo gën waaye ginnaaw léegi la fa daan am ci xeeti xam-xam amatu fa rek ñu baree bari ci ndaw ñi bu ñu jàngee ca jàkka ya duñ fa dem di teewee leneen lu julli gi waaye ba nga xamante ne fii kenn mënta am xam-xam bu wér ak yi ñu doon wax léegi lu dul ci jàkka ja booba jàkka yi da daan fees dell kon bokk na ci li tax sax nit ñi di jàmm jàkka yi maanaam mooy rôle yi nga xamante ne fii jàkka daka daan suyee te suyeetu ko ba tey moo tax nag njariñ loolu ak solo soosu mu am sax sun borom daal di digle ne nañ koy dundal ni innama yaamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmil axir wa aqama salata wa aata zakata wa lam yaxsha illa allah di wax ne rek ñenn rek ñooy dundal jàkka yi nga xamante ne si moom la yàlla am ci kaw suuf ay nekkam mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm àllaaxira di taxawal julli di joxe asaka te ragaluñ kenn ku dul yàlla ñooñu ñooy dundal jàkka yi dundal boobu moo xam ne dafa am dundal goo xam ne mënees na ko jàkka dundalu zahir ak dundal goo xamante ni si mënees na ko jàkka dundalu baatin dundalu zahir si mooy ni mu ko xamee mooy tabax ko defal ko ba mu baax yéete wala yépp ñu def ko fexe ba mu jublu xibla fexe ba mu nekk barab yoo xamante ne si nekk ko la fa digg nit ñi nekk ñi di ko fa def loolu it xaj na bu ñu demee ba àgg ci biir waxtaan wi ak sëriñ si liñ ci liggéey xaj na su boobaa danañ ci mën a gën a joxe ay misaal maanaam nga xam ne daraja ji mu am li lay xamal ne am na daraja même bu fekkonte ne l'islam waxu ko boo dikkee ci suñ barab yi rek li la koy xamal rek bokk na ci tey dëkk bi ñu nekk nga xamante ne si ne leen Sénégal moo fi ñaari dëkk moo fi ëpp tey boo fi dikkee li ci gën a seer du pale du la neen maanaam du doo xamante ne si ñi dikk addina ko dëkk waaye li ci gën a seer gën ko gën fay waloore mooy jumaa ji jumaa ju mag ji ci ne moo fi gën a seer loolu donc bu fekkonte ne xamuñ dara wàññi njariñal jàkk rek danañ xam danañ xam xaj ne loolu dana def ci kanam tuuti bokk na ci li lay xamal ne njariñ yi am moom jàkka yi foo ko fekk mag ñu njëkk ña buñ ko daan defar ñu sëñ Tuubaa yoon ñëpp ak ñoom duñ ko bokk bokkal maanaam duñ dikk dëkk ba doyal daa koy xaj-xajal moom maanaam nag nañ def fee jàkka déedéet balaa kenn am kër comme noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ba mu duggee almadinatul munawwara nga xam ne daa dugg rek ñi di jënd jàkka ji ba noppi nag kër yi dooga dikk daal di koy wër boo dikkee fii noonu ngay gis da ngay gis ne fii jumaa ji kër yi fi njëkk daf cee bokk kër ji nekkoon fii muy nga xamante ne fii moom mujj doon jumaa ji bokkoon ci kër yi sëñ Tuubaa yi da ngay gis ne ni ñu ko tabaxee ba noppi ni ñu ko lotissé dëkk bi ci boppam rek boo koy xool mbooleem met mbedd yu mag yëpp ñoom ñëpp fi ñu jëm kenn rek la mooy jàkk ja te jumaa ja loolu yi day wane solo solo soo xamante ne si jumaa am na ko ndax ñi nga xamante ne si gëmuñ yàlla jaamuñ ko àddina rek lañ gëm ñoom soo ko demee tey lañ gën a fonk ci réew yi nga xam yëpp lañ gën a fonk mooy doon symbole dëkk ba su boobaa ne daaj ji ci digg ba mbedd moo gis nag daanaka foofu la la jëmee ne àggale na tey jii boo demee ci réew yu mag yëpp jób may joxe ay tur ak yu demee noonu réew yi nekk Europe wala yi nekk Amérique yu demee noonu yëpp maanaam monument yu mag yëpp xool mbedd yi jëm loolu li ko waral nag mooy duñ ay jullit ñun ñu doon ay jullit ñëpp maanaam jërëjëf ñuy laajte lan mooy jëriñal jàkk ndax dëkk bu toll nii ci misaal mbedd yëpp fenn la jëm te li yëpp fenn la jëm mooy ci jumaa ja mbedd moom gis jëmu ko it dafa am mbedd moom muy doogee rek muy mbedd mu mag jëmee ci jumaa ja kon ginnaaw moo fi gën a cher te ku dul dëkk lislaam yi xaj na mu bokk ci li fi li fi li waa fi ràññikoo rawat na sëñ Tuubaa xam ne bu ñemee ba àgg ci digganteem ak jàkka insha allahu taala dana gën a leer mooy faneen foo dem jàkka mën na faa am waaye da ngay gis ne rek dañ koy seggal rek waaye la fa gën a foos la fa gën a seer da ko doon fa nga xamante ne si fa la ñëpp jëm du doon jàkka ji nga xam ne tey jumaa ji ni mu taxawee day mel ne benn orange boo xamante ne si boo ko xolli woon rek sol yooyu noonu muy def noonu ñu def bu ne jógee fenn ñeneen dem ba daje ci digg ba loolu mooy jumaa ji bu baax soo demee ci réew yi nga xam ne dañoo xaw a développé ak yu demee noonu bu fekkee xam ngeen xaw su nafta am nañu bari bari ñoo xam ne xam nañ ko tey réew moom nekk jël ma koy tudd boo fa demee tey boo ko xooloon ci jumtukaay yu bees yi ba gis ko ni ñu ko photo ci kaw rek maanaam photo bi nga xam ne panorama la da ngay gis ni mbedd yi ni ñuy jekk ak ni ñu ko jubloo kon loolu lépp li ma ci bëgg a misaal mooy jumaa suñu waxutoon njariñ li mu am te gis bu yàggul rek ñi nga xam ne yàggul ay téeméeri at ak yu demee noonu suñu Tuubaa ñu topp ci ginnaawam rek ni ñuy fonk jàkka te loolu yëmul ci Tuubaa waaye dëkk yi wër Tuubaa yëpp tey boo fa demee te sëñ Tuubaa sanc ko wala mu sanc ko moo xam Daaru Muxti wala Daaru Salaam la wala yu demee noonu yëpp da ngay gis ne li ma wax ci jumaa Tuubaa ji day valable foofu ba tey kon loolu lépp dana wane jumaa ji njariñ li nga xamante ne si moom jàkk am na ko kon ba tey kon moo tax alxuraan daal di wax ne ñii dundal jàkk yi bokk na ci dundalu zahir si nag comme ni ma ko waxee léegi dundal boobu de di ko tabax muy rafet ba tey boobu it mënees na ko jàpp mbooleem juma yi nga gis it bokk na ci li lay wane juma li mu daan def ci lislaam moo tax ñëpp fonk ko moo ëppoon solo foofu kër yi moo tax juma yi ñu ko tabax yëpp sëñ Mourou Moustapha wala sëñ Fall ak sëñ Abdoul Ahad ak sëñ Abdoul Khadir sëñ Salih ak ñi fi nekk ñëpp doon agréé ba ak sëñ Moustapha comme sëñ Alhaji Bari sëñ Sidi Muxtaar kenn ku nekk gis na ne juma ji mooy daax këram fuuf surtout bu njëkk ñoom ñëpp bi ñu tabax ay jumaa ci ay néegi ñax ak yu demee noonu la ñuy def loolu lépp di wane kon njariñ li nga xamante ne si jumaa am na ko xaj na loolu sax ak buñ ci diggante sëñ Tuubaa ak jumaa waaye xaj na dañ ciy joxe misaal dañoo tolloon ci rek buñ demee ba koy dundal nag kon nañ ko dundal ci zahir ak ci baatin ba tey da nga gis ne même ñu topp sëñ Tuubaa sax loolu daf leen a wàll ba fii may waxee yow def naa ne jumaa yi gën a taaru ci réew mi jumaa yi gën a seer da ngay gis ne murid yi ñoom ñoo koy moom kon loolu lépp di wane njariñ ñoo xamante si sëñ bi xamoon na ko ci solo si jàkk ba noppi daal koy jëmbat ci taalibe yi ak yu demee noonu li li ci yéeme yi mooy bokk na ci loolu borom xam-xam yu njëkk yi dañ ko daan wax borom xam-xam ci fuqaha yu bari rawatina ci maalikiya dañuy wax ne sax jullit ajuma juma ba lañ cee mën a julli na doon juma yoo xam ne day mel ne kër yee wala mu dàq leen loolu li ñu wane kon mooy juma juma juma nekkul na ñun dañuy tabax suñu kër ba mu defar daal dem defar fële jàkkee xat ak yu demee ni di cay julli loolu su boobaa ñun daawuñ ko jullee tuddee juma yoo xam ne mën a sacca julli ajuma dañu bëgg na kër yee mel mu mel ko wala mu dàq ko foofu kon loolu laay wax dafa am cosaan ci l'islam loolu rek laa ci jublu woon kon tabax googu ñuy wax ci tabax zahir nga xamante ne si boo ne ko jàkk te cher gaag te fam placé ak yu demee noonu yëpp kon loolu bokk na ci li nga xamante ne si dalay xamal jàkk bu baax a baax ak njëriñ li nga xamante ne si amoon na ko moo tax société boo gis muy société boo xamante ne si ab ay jullit lañ da ngay gis ne jàkka ba noppi dafa am dafa am rapport maanaam sa identité yow yow jullit bi maanaam ni nga mel ak yu demee noonu loolu jàkka daf ci daf ci daf ci participe bu baax a baax a baax a baax moo tax ñi nga xamante ne si dañu bañ lislaam tasaare tasaaroo ci seeni réew sax soo gisee duñ teree julli rek ci biir kër wala yu demee noonu li ñu njëkk a tàmbali di xeex mooy jàkka li ñu njëkk a tàmbali di xeex mooy soorool li ñu njëkk di tàmbali mooy xeex mooy ay noddu ak yu demee noonu am nañu réew yoo xamante ne si sax dañoo ñaanoon ne léegi nañ bañ di nodd ca kaw te soorool yi di jóg kese waaye teewul dañ koy tere loolu dara warul ko dudul day loo xamante ne si ni ma ko waxee léegi day dem ba yàgg du yem ci nit ki di fa dem rek mel na tabax bu mu dem wala kër bu mu seeti waaye loola daf koy wàll day dikk ci jëmmam di ca am ay soppax di ko yu mag a mag a mag yu demee noonu maanaam dafay laal identité loolu laa bëgg a wax loolu kon bokk na ci njariñ li nga xamante ne si jàkk bu ñu ko dee dundal nañ ko mën a dundale ba tey day am njariñ loolu moom moom jàkk foo fekk nag réewum jullit su dëgëree rek xamal ne jàkk moo def la mu war a def waaye su fekkente ne jàkk ji jullit ñi néew nañ doole xamal ne jàkk moo defut la mu war a def déetul wax sax jàkka moo defut la mu war a def waaye ñooy jàkka ñi nga xamante ne si ñoo fa war a nekk xamal ne su boobaa ñoom ñoo defut la ñu war a def kon loolu lépp bokk na ci njariñ ñi nga xamante ne si jàkka am na ko dana joué rôle bu am solo boobu ñu ci dund jullit bi ba tey moo tax ba tey jàkka doon ni ma ko waxee léegi doon loo xamante ne si it des koy def rek ngir di ca julli yi ma wax yëpp ci jàkka la bokkoon waaye lépp loo gis ñu naan ko almasariul xayriya mooy projet yi nga xamante ne si maanaam mënees na ko tudd ay jamiyat xayriya ak yu demee noonu lépp la amee woon maanaa ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jamono yi saxaaba yàgg ne leen topp ak yeneen noonu ba ci ak suñu jamono ci biir jàkk la daan nekk nga xam ne culture boobu dañ amee woon lépp lu ñu def tam doon lu baax ci biir jàkk lay génnee moo xam dimbal yeeg yi demee noonu comme ni ñu ko waa daay di defee nga xam ne tey bokk na ci li nga xamante ne si soppoon nañ ko ci koor lool mooy dimbali leen te ci suñ biir loolu defe naa ne gis nga tey yemale wuñ ko ci biti di dimbali ay nit ci biti ak yu demee noonu waaye dañuy dikk ba indi ko ci biir jumaa di fa jullee yooyu loolu lépp ñu yokk loolu lépp ci biir jumaa la bokkoon xaj ne bu ñu demee ba nga xam ne àgg nañ ci biir waxtaan sëñ bi ci boppam sax ak jumaay jaajëf da nga gis ni mu amee woon njariñ booba dana dikk léegi ak ni ko sëñ Tuubaa féetale woon ak rôle yi ñu ci daan doxal ñu demee noonu bokk na ci jàkka ba tey ko njariñ li am lool maanaam lépp loo xam ne déggoon ko ko rek asaka fañ ko daan séddalee fañ ko daan xaymaan fañ ko daan jàngale lépp ci biir jàkk la daan doon su ne ilmul miraas booba ñoom amuñ ay machine yi calcul ak yu demee noonu booba jàkka yi dawuñ ko dal ay tat ni ñaari suuf la daan doon su ne ci lañ daan maasale di jàngale ilmul xisaab ci niveau boo xam ne day kaw ba mel ni ñuy jàng ci université yi tey li ñuy wax riyaadiyaat ak yu demee noonu kon loolu ci jàkkale génne moo tax borom xam-xam yi wax nañ ne maanaam jàkka ci boppam jàkka yi am na ñu jàpp ne borom xam-xam jàpp ne bu yomal xiyaam comme ni ñu ko xamee dañuy wax ne barab fépp foo jullee dafay seede su jàkk su yomal xiyaam ñoom seen bopp dañuy jàmbat jëm ci suñu borom subhanahu wa taala maanaam ne ko léegi ñiñ dëkkaloon ana lan moo tax daawuñ dikk ak yéeme noonu ba suñu borom wax ne waaye ci ak tedd nga akum màggam ne du ma leen nangul yenn julli maanaam loolu du ma leen nangul yenn julli bu fekkante ne daawuñ def dikk ci yow ak yu demee noonu loolu lépp di wane njariñal jàkka waxin la waaye teewut nag li mu gën a wóor mooy boo ko defoon sa kër moom julli teewut dina wér loolu nag tax sax ñi bëgg nit ñi di dem ci jumaa lu bare bare di fa julli ak di fa teewe yi demee noonu ñii ko doon wax ngir bëgg la jumaa santaane moom mu mën ko di ko fa jëlee moo tax bokk na ci li ñu gën a bañ ci ngir lislaam yëpp tey mooy li ñuy wax taxalluf maanaam ruusaam di bañ di bañ a dem jàkka ak di ko tóngu ak yu demee noonu tóngu mooy jàmm ko maanaam bañ di dem ci jàkka loolu lépp boo gisee borom xam-xam yi dañ daan wax ne képp koo xamante ne si dëkkandoog jàkk nga rek war nga di ko seet ñu ne nag nekkul ne mooy ki dëkk moom kese nga xam ne miiram dafa taxaloo miiru jàkka ji te boppam déedéet ñu ne mooy képp koo xamante ne si dafay dégg kàddu noddu kàddu nod maanaam kàddu noddu kat ba ca jamono jooju nag micro amagut kon léegi bi micro amee ak jumaa yi bari loolu mooy war la xamee ne war nañ koo dundal lool kon maa ngi doon wax léegi rek ci dundal bi ñu koy dundal ci wàllum matière tabax yaag mu placé rek mu baax ak mu rafet ak bokk ca la gën a seer ak yu demee noonu waaye al imaar ak roox yi daanaka tàmbali naa ci digg mooy dundal bi nga xamante ne si nag ci wàllu spiritualité ci la gën a jëm mooy nag suñ diggante suñ borom si boppam jàkk dox diggante bi nga xam ne fa la ñuy fa la ñuy jaamu yee yàlla subhanahu wa taala badaana loo gis ci lislaam sax ma nees na ko def ci kër yi waaye da ngay gis ne toujours jàkk yi lañ ci gën a taam loolu it lu lépp solo jàkka rek ndax bokkut ak dara lu jafe ci kër ba ci naafile yii ñu def ci tarawih ramadan gis ne ne ci fekk dañ naan la bu fekkante ne jàpp nga ne boo koy defee sa kër sax da nga koy xaw a yàq di ko defee noo xam ne da nga koy sàggan du farata nga dem defe ko ci jàkk waaye demal defe ko ci jàkk dafa néew nit dugg fa mën a yab yàlla wala muy am soo fa duggee rek dafay am ruhaniya maanaam spiritualité bu fa nekk boo xamante ne sii moom ci boppam moo lay attiré moo tax lu baree bari ñi di ko fa bëggee loolu sax dañoo dem ba nit day dem ci jàkka di fa wuti leneen loo xam ne du julli ndax bu nekkee këram du ko mën a am tey université yi adduna bi yëpp boo fa demee ñu fay jàngal islam wala ñu fay jàng yu demee noonu tey da ngay gis ne talaba yi muy étudiants yi suñ demee ba examen yi di bëgg di ci jàkk yi day fees dell dell ndax fa la ñu demee dañ fi murajaa fa la ñuy naxane ak yu demee noonu loolu dara wala lu ko lu dul boo nekkee sa kër lu sa xel neex neex neex loo bëgg a fàttali ko la nga doon jàng da ngay yëg ne rek fi nga nekk da nga am rapport ak li ci bitti muy addina bala ngaa xam ne nag maanaam te xam-xam dafa am rapport loolu ak ruux maanaam al aql ak ruux ni ñu amee rapport nga xamante ne fii nit ki lu mu la gën a baax lu mu la gën a sell lu mu la gën a jege yàlla moo lay gën a xam la ñu jàng ndax loolu du doonati ko dala mu xel mu neex wala yu demee noonu waaye day doon jege yàlla te xam-xam comme ni ñu ko xamee leer la loolu mooy waral ñoon sax buñ ko ci jublu waaye da ngay gis ci jéegi lislam yu mag yëpp buñ ñu examen yi weer ci des wala dara rek ñii jumaa ji mel noonu lay mel ñëpp dañuy bàyyi la ñu yoroon am na ñoo xam ne fa la ñuy nelaw am na ñoo xam ne buñ bëggee lekk sax buñ demaat seen kër di lekk dañuy génn jënd dara daal daw del siwaat nga xam ne ab làqbukaay la doon doon loolu ci wàllu jàng ak yu demee noonu loolu rek moo la koy xamal xam su boobaa ba ci ñi nga xamante ne si ñoo doon gaa yu baax ya da nga ci gis ñoo xamante ne si léegi-léegi dañuy dem ci jàkka daal di fay dëkk maanaam nekk fa yàgg fa lool di fa def ay xilwat wala yu demee noonu wala ñu fay def ay i'tikaaf ngir buñ fa jógee ba delluwaat ci nit ñi nit ñi dañu mel ne ku leen bëgg a delluwaat ci ñoom niñ mel nit ñi su boobaa nag kon jàkka li ma doon wax léegi ne lépp dañ ko détaché rek waaye lépp jàppal ne almaljaw maanaam wéeruwaay bu mag bi sax ak làqukaay bi jàkkaa ko doonoon moo waral kenn ci taabi'un yu mag yi ñu ne ko waaw satu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee addina moom demul sa rob ba ñu ne ko loo tax demoo ci mu ne nekk ci sama jàkka man moom gënal may dem ci ab rob noonu la ko waxee loolu nag boo ko déggee sax xaj na da ngay teg ne dafa xeeb maanaam yool xiraat yi nga xamante ne si waxoon nañ ko ci teewee denc ak néew rek ak bu mën a doon waxuma laal nit ku baax waaye amul amewut maanaa boobu maanaa bi amee rek mooy nit yàlla lépp kon ci mbirum charia laa doon wax xaj na sax ci mbirum tasawu ak ruxaaniya yu demee noonu loolu laay misaal rek ne moom dañ ko jàppe woon ab làqukaay ndax comme niñ ko xamee addina yi day gën di yàqu rek dañoo demoon ba nga xamante ni si léegi almel yi buñ demee ba koy rob ñu bari nee nañ buñ fa teewee dañuy gis ne léegi amuñ la taxoon nit ci waaru ci armeel wala yu demee nag duutuñ ko fa gis loolu nag ku ne xam ne ne suñ jamono ji ci li gën a baree loo daan daw rek di jëm ci armeel ngir waaroo fa suñuy rob léegi mën nga faa gis loo xam ne noonu la lay delloo fee ci addina moo tax am ñoo xamante ni si sax mujj na ñoom ne léegi dañuy làqatu ci seen jàkka ku faatu sax duutuñ def ak yu demee noonu loolu li ma ci jublu ni mu doonoon ab làqatukaay ci al ulumul islamiyya wal ulumul lughawiyya wal ulum ñi ma lim yépp ak ci siyaasa ci ijtimaa ak yi dama noonu ci iqtisaad noonu la doone woon làqukaay boo xamante ne ci wàllu spiritualité noonu la ko doone woon kon moom jàkka loolu it du ma taxam la ba tey kon maa ngi doon wax léegi ne aaya boobu ni ñu koy déggee mooy zahir ak baatin zahir si mooy fonk bi ma doon wax fonk ba zahirul masaajid waaye bu demee ba ak maxtawa bi muy contenu bi ci boppam doon loo xamante ne si lu dox lay doon lu tegu ci aw yoon lay doon ba mel ne jumaa yi nga xamante ne si mooy jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne borom xam-xam lislaam yëpp ku fa génnewul it ngir seetewoo ko ñooñee ñañ génne ñi génne ñeneen ñi génne ñeneen ñoo la jàngal ba nga agsi te suñ jumaa yi topp di tànk yooyu ba tey kon loolu it mën na ko joxe ci misaal ci jàkk ba tey kon loolu lu am solo la ba tey dundal jàkk nag comme ni mu dikk ci aaya boobu comme ni ma ko waxee léegi maanaam baatin bi la ak zahir bi ñaar yëpp misaal naa ko loolu nag moo tax mu war ñun ñi nga xamante ne si ñooy doomi jàkka mu ñooy doomi jullit ñi ñi sax ci def ci jàkk yi def ci jàkk yi boo ko dégg waxul nga nga toog ko bañ a liggéey ndax loolu day ràppal àddina waaye mooy fa ida faragta fansab wa ila rabbika farghab saa soo noppee rek ci àddina rek daal di delluwaat ci yàlla loolu nag jàkk kese moo ko mën loolu nag waxul yi dem ci jàkk rek tëdd fa wala yu demee noonu waaye solo sam amoon ci moom maanaam gannaaw julli mu di ko am ba tey moo tax dana dikk ci kanam léegi sëñ Tuubaa ni mu bañ woon nekk ci jàkk di fa wax nekk ci jàkk di fa nelaw nekk ci jàkk di fa tëdd yu demee noonu yooyu yëpp kon dana dikk léegi loolu moo tax war na kon jullit ñi ñu fonk noonu jàkka loolu nag ku ko wax respecté jàkk ci boppam nga solo si nga xamante ne si amoon na ko soo ko déggee xam ne ñu njëkk ña dañ ko jàppoon loo xamante ne si maanaam dafa doon ab xaaj ci mbiri si borom maanaam ni ngay gisee islam yu alquran ñi di ko màggal wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi di ko màggal dafa mel ne noonu lañ defal jàkk maanaam ngir bëgg di mu doon barab boo xamante ni si dañ koy wormaal lool nga xamante ni si duñ fa bëgg a yëkkati seen kàddu duñ fa bëgg a def lépp loo xamante ni si ak neen la comme ni ma ko doon waxee léegi rek ci kooku koo wax nga xam ne daa am ku dugg ci jàkka tëdd mu ne ko jugal fii kenn du fi tëdd soo bëggee jàng alquran xala xabale moom lay jàngale soo bëggee def li xala xabale moom lay jàngale yu demee noonu ma bàgg lépp lu arab moo tax ñu di ko def ci biir jàkka lu mel ne riba maanaam di jëw ak di fa yëkkati sa kàddu ak di fa def dara loo xamante ni si dafa neen nga xamante ne si maanaam lépp loo xamante ne si war naa jàkkale yi ñu sàkk ko fa moo xam booy dem nga doon koo xamante ne si gis nga yu bëree bëri dañ ko doon tere bokkoon na si di lekk laaj wala nga amee loolu lépp lañ koy dégg rek wala nit koo xam ne bu dee ci suñu jamono day naan am day naan saxaar naan saxaar mooy koo xam ne day jëfandikoo bant maanaam di toog wala yu demee noonu loolu lépp ku koy def da ngay gis ne xet gi bëgg ñu dugg di jàkka ndax ak saw ak basal nañ ko daan tere muy laaj ak soble nit ki bu ko amee bëgg dem jàkka nga xam ne dañ ko daan tere te gis nga yooyu sax yi njëkk a tudd ci ñam lay dem loolu waaye mag gi mag rek bëgguñ lu dagan sax te am xet nga di ko fa dugal waxuma laal lu dul moom waxuma laal nag li nga xamante ne si moom dafa xaraam te aaya boobu ñu naan yaa bani aadama xudu zinatakum inda kulli masjid ñu bëree bëri ci borom xam-xam yi am na ñeneen ñu ci am beneen gis-gis waaye gis-gis bi maanaam bii may waxe borom xam-xam yi bëree bëri maanaam boobu lañ ko amee lañ ko gisee maanaam mooy booy dem ci jàkk nga doon koo xamante ne si ku mucc nga ci mboolem ay yëpp da ngeen ko gis ci jullit ak jëma fiq nañu fonke ak iid booy dem ngay laal gët ñu naan ko fas moom ak yu demee noonu yooyu yëpp day wane jàkka dara ji boo xamante ne si amoon na ko kon moom moo daan defar nit ñi waaye nit ñi daan ñu leen tere bu ñu fay dem di fa defaru ñu fay demee nu mu leen neexee mel na dañuy jëm seen kër wala jëm seen kër yi xarit wala yu demee noonu xaj na bu ko waxtu bi mayee bañ dem ci sëñ Tuubaa yeesal bi mu def ci jàkka yi maanaam xut ci yëtu bi mu amee muy niñ ko jàppe loo xam ne dafa sacré loolu moom jàkka da ngay gis ñu yar ni ñuy respecté jàkk sax dañ ciy raw ñëpp xaj na loolu lépp bu baax bu danañ ci àgg léegi bu soobee yàlla moo tax benn borom xam-xam bu mag daan wax ne na ngeen wattu jàkka yi bu leen doon ñoo xamante ne si maanaam ay homme de culture lañ rek tax ñu bëgg a xeet jàkka maanaam mel ne européens yi ak yu demee noonu mooy occidentaux yi ni ñu mel ndax li ñuy wax am na ñoo xam ne ni ñu xoolee jàkka te mën nañu doon ay jullit yaruñ leen ci jàngiwuñ fa tàmbaluñ leen jullee fa tàmbali tàmbaluñ leen wax leen wax leen solo dañuy dem ba yàgg ni ñu xoolee jàkka mooy comme ab tabax rek mu jeex boo ko dee xoolee tabax nag day mel ne mujj rek mel ne sa tabax bi ci début kër loolu loolu nag lu mat a bàyyi xel la lu tabax bi rek lu ci am solo la waaye la ñuy def ci biir contenu bi li nga xam ne moom la jàkka làmbool mu doon loo xamante ne si dañ ko war a samp ak di ko sàmm moom jàkka waaye jullit boo gis sàmm jàkka war ko ci sàmm yëpp nag nga xam ne ki nga xamante ne si dafa am xam-xam bu fa mënee di jàngale mu di fa jàngale su fa mënee di jiite maanaam ki nga xam ne moo yor jàkka ji bu ñi nga xam ne ñoo yilif jàkka ji buñ mënee di samp ay borom xam-xam ñi di fa jiite ak ñi fa jàngale ñi di ko def xaj na nit mën defal boppam loolu lépp dafa dugg ci fonk jàkka kon ba tey lépp loo xamante ni si da ko aajowoo rek maanaam ñu daal di ko koy jox ba tey kon loolu lu war la ci jàkka loo xamante ni si waris na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax kon loolu damaa bëggoon ñu gàttale ko foofu li jëm ci jàkka dama doon wax rek ci lislaam bu njëkk ak yu demee noonu ak ni ñu ko doon taxawoo ak yu demee noonu ndax dana ci am solo lool su ko defee ñu mën a xam Sëñ Tuubaa nan la ko doon nekk nan la ci doon leeg yu demee noonu moom ci boppam it boo seetee tey daanaka loolu dama koy dagg kon yemale ko foofu tey boo seetee Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nga xam ne dama koy indi tariqatul murid yi jàkka jëmmi jàkka di boppam rek boo seetee doonoon na koo xamante ni si moom digganteem ak jàkka jërëtul laaj digganteem ak jàkka jërëtul laaj ndax doy na ko sëkk ñu ne tey jumaa ji gën a mag réew di sànni foo dem jumaa ji fa gën a réew yooyu yëpp ko tabax boo ko laajee état ba lañ lay wax soo demee maghrib al maghrib tey dañ naan la jumaa ji fa gën a mag wala dafa gën a cher buur baa ko tabax soo demoon Arabie Saoudite loolu lañ lay wax soo demoon faneen soo demoon faneen loolu lañ lay wax tey nag boo gisee moom mu fexe ba ak njabootam jumaa yi gën a fees Sénégal ñu tabax ko noonu dana la wax te lépp moo ko batale da nga gis lan moo waral fan la tegoon jàkk dëgg dëgg dëgg dëgg su boobaa ca ngay xam kon moom fan la tegoon jàkk dëgg dëgg dëgg fam ko teg nag maanaam moom jàkk mooy lislaam rek jërëjëf ñi indi ay aaya wala ay xadiis doonte bari na lool yoo xamante ni si loolu jàkk da lay wax ak nan la war a demee jullit bi wala yu demee noonu waaye xaj na kon su boobaa waxtu yi day gën a gàtt te li ñuy wax lu mu gën a kawe rek li di gën a dem te nit ñu baax ñu njëkk ña ñu bari ci ñu dëkk bi teg ne loolu kon waree su koo roy mënee su koo roy bopp ndax ñooñu dañoo yàgg waaye buñ fobee ñi nga xamante ne ci ku mel ne sëñ Tuubaa nga xam ne bu yàggul la nga xam ne comme ni ñu ko xamee dañoo gis ay jeexitam lépp même buñ ko ci sekkut su boobaa dañu xam ne te dañuy te dañuy gën a duggee waxtaan yi su boobaa kon yaakaar naa ne moo tax borom xam-xam islam yi lañ ca doon wax lépp daanaka mën naa koo tëb waaye bokk na ca rek doy na sëkk jàkkale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne juróom ñaar ñi yàlla moo leen di keral bis ba nga xamante ni fii maanaam kenn du am ker gooy kerloo lu dul kerul yàlla ba mu waxee ne imaamun adil ak waxambaane boo xamante ne si sosu na ci jaamu yàlla subhanahu wa taala ak yu demee noonu ak góor boo xamante ne si ab xolam dañ ko aj ci jàkka yi kiñ xol kiñ aj ab xolam ci jàkka yi nag mooy weesuwul ñi mën a wax rek ñi nga xam ne dañuy taxaw ba jàkka yi ji ba mën a jàngee lee lépp loo xamante ne si ab doon la bu mbat di juyee rek ñu fexe ba xam ko su boobaa ndaw ñi danañ fa dem bu leen neexee ak bu leen naqaree te su boobaa seeni xol dana aji ci jàkka te su boobaa lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digg ci moo ci am su boobaa kon loolu rek looy ni sëkk jàkka daraja moo tax Sëñ Tuubaa nag ci tànk yooyu rek kon la jaaroon doon koo xamante ne si ak fonk jàkkaam ak fonk jumaam waxuma ci di ko jullee sax waaye dafa weesu woon foofu maanaam dafa dem ba nga xamante ne si léppam léppam ni nga xamante ne si lislaam noonu la mel mel lépp bàyyi ko ci jàkka yi moom it léppam mu jigi doon jàkka kese mu amoon ak fonk lool ci jàkka nga xamante ne si comme ni ñu ko xamee lépp lu dug julli lépp lu dug tudd yàlla lépp lu dug tabax da caa taxaw doonoon koo xamante ne si maanaam ni ñu koy jàng ci téere yi ni ñu koy dégg ci mag ñi ñu ko daan nett bi moom digganteem ak jàkka xam nañ ko ngelaw ak diggante ay sedd beeg diggante aw naaj yu tàng bi yëpp mën ta woon na dox ak digganteem ak jàkk bokk na ci li mu gënoon a fonk jàkkaam li mu daan ràññi ko ak jàkka yi loolu yi war nañ ñu xam ko mooy digle gi mu daan digle ñi di ko tabax ak di ko bari nga xam ne 1920 1916 ba ñu fondement jumaa Njaay def ak li mu koy inauguré 1920 nangam boobu da ngay xam ne ju bâtiment bu mel noonu sax amul Sénégal daal maanaam bâtiment bi addina bu rafet noonu rek bañ ci réew mi waxuma laa nag mu jagleel ko yàlla ba noppi comme ni ma ko doon waxee léegi ci xalifa yi bu fi wuutu fi ñu dëkk ni mu ñàkk solo ci zahir ak fa ñu tabaxal yàlla na muy mel nga xam ne boobu fi mu dëkk ni mu mel ak jumaa Njaay ni ñu mel dañu wuute lool loolu nag mawdu bu yaatu la ndax coono bi ñu def ci jàkk nag moom beneen conférence la boo xamante ne sii ëpp na ab tem ëpp na ay tem waaye doon la sëkk ñen la jumaa njëriñ tey ana fan la jógee ñu ne réewu jëf ci plan bi fa lañ ko jëlee fi mu ne nii nga xam ne li ñu ci daj comme ngeen ko gisee ci yenn téere yi nga xam ne mag ñi bindoon nañ ko ba ko fi li ñu ci daj mënee su ko xam moom jumaa jumaa njëriñ plan bi te tuut ci defe naa ne tey lu waaye gàtt gàtt xam-xam te xam ni mu taxawee ci addina bi rek da nga xam ne doonu tun réew moo xam ne booba oto sax bëri waxuma la ay avion yi dugg di fa dem waaye ànd ak loolu lépp fa lañ jëlee plan ba maanaam loolu beneen xel la moom boo xamante ne si fonk jàkk ma ko waral ba plan ba dikkee yi gis-gisam te plan ba yépp moom moo ko doon waxal boppam loolu lépp di wane fonk boo xamante ne si fonkoon na ko jàkk kon fonk bi mu fonk jàkk nag moom sëñ bi ba tey daanaka borom xam-xam yi nga bind nañ ci moom nee na digle bi mu daan digle jàkka yi ak di bañal ñi di ko def ak di ko setal ak ñi fay bañ a waxtaan ak yu demee noonu wax nañ ne maanaam dafa demoon ba nga xamante ne si fàttaliku nañ yenn ci këram yoo xamante ne si rek lu mat fukki jàkkaar ñaar mi ci biir kër nga xamante ne si guddi gi yëpp da koy fanaanee julli léeg-léeg mu dem ci jàkka jee léeg-léeg mu dem ci jàkka jee nga xam ne jàkk ju nekk mu teg fa ndox jàkk ju nit ñi teg fay sat la ak yu demee noonu jàkk ju nekk it dafa am waxtu bu mu ko jagleel ci guddi gi te jàkk ju mu ciy bëgg a dugg it day waajal njàppam bu bees tax ak yu demee noonu ba borom xam-xam li nga xamante ne si moom la ñuy wax moo taalif annafaatul miskiya nee na moom xamut benn jaamu ko te yàlla bu ñu wax ne noonu la daan def kon loolu yi day wane ak fonk jàkkaam ba tey moom Sëñ Tuubaa ba tey bokk na ci fonk gi mu fonk jàkka yi wax nañ ne mësta gis benn barab barab ba di barab boo xamante ne si bu rafet la wala bu neex a jaamoo yàlla loolu dafay xemal jàkkam su fekkente ne fu mu romb la sax mënu ko faa tabax mënu ko faa tabax ndax xaj na loolu nekkul ci ak moomeelam ak yu demee noonu teew dana fa taxaw daal di wàcc di defe ñaari rakkaa loolu ñëpp xam nañ ko waxu wala ñi nga xam ne ay murid lañ waaye léegi bu fekkee am na borom xam-xam bu mag bu nekk murid lañ xañ nañ déedéet may tudd tudd su ma tuddee su ma ko junjee rek danañ ko xam taxaw na ci télévision bu mag boo xamante ne fii télévision alami la boo xam ne mondial ñëpp koy seetaan mu ne am na ku ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba ca Sénégal nee na ba Cheikh Sidiye Baba waxee ne léegi nañ dem jëli ko maanaam ndax tubaab yi comme xajitoon nañu Cheikh Sidiye te léegi moom mu garanté woon ko ne doon tuntug ay ñu ne kon na li musa ni nekk Cheikh Sidiye maanaam dend ak moom ndax moom garanté na ko borom xam-xam boobu nee na ki ko seex si baba booleel ngir mu jël si ko nee na bu ñu waree ci gileem bi bañ duggee désert ba nee na bu gisee suuf si désert ni ñu mel maanaam saxaraa mooy gën a rafet tuuti suuf suñu suuf yi day néew loolu muy tax ak yu demee noonu ndax day yaatu loolu te kenn du fa dëkk ay mbali rek yooyu dafa am nee na fu ñu romb rek nee na danaan suuf si day maa aj data bi an naabuda allaha fi hadihi ard ne lu màgg màgg yellal na ñu jaamu yàlla ci suuf si nga xam ne nee na day wàcc gileem bi daal di wàcc daal di dugg nee na daal def sujud yàgg yàgg yàgg yàgg ba nga xamante ne si ñoom àndal sax day mel ne koo xam ne dana leen xaw a yàggal ko di bañ bëgg a tànn kon fonk jàkka nga xam ne maanaam li tax mu fay xeeme ñu jaamoo fa yàlla si bu fekkonte nag fu mu yilif la wala fu mu dëkk dafay def jàkk moo tax ni ma ko waxee léegi sax ñoom dawul njëkk-njëkk rek dikk rek daal di bokkal ci jàkk daal di tabax dañ koy njëkk a seet doon sëñ Tuubaa yépp ngay dégg Tuubaa ni mu bindoo ci boppam rek jumaa ji xëy amu jumaa yi ngay gis ci adduna bi bu fekkee xam nga dara ci xibla ak jumaa yi moo taxawee da ngay gis ne xam nga dinañ leen bindoo dafa mel ne jumaa ji maanaam maanaam ni addina bi bindoo nii mu def gis nga jumaa ji ci boppam ni mu taxawee da ngay dem ci réew jullit yi mag xam nga jumaa ji ni muy taxawee maanaam dafay jëm tuut dafay jëm wetu ndeyjoor wala mu jëm wetu càmmoñ te mën naa am sax jublu na xibla waaye loolu li ko waral rek mooy dañoo lotise ba noppi doog a dëkk def seen i kër ba mu jekk doog a bàyyi xel yàlla nag su boobaa nag seen i mbedd na mu taxawee bu fekkee jublu doon xibla jumaa yi day bañ ñu jublu xibla boo gisatee nag ni nga ko xamee ci sëñ Tuuba li muy njëkk a wax mooy nañ juma def la jumaa ji ba noppi suñ ko juma juma dee la ba noppi ñu doog a génne mbedd yi loolu dafa dikk ba ci njaboot sëñ Tuuba gi kon nga xam ne ne ñoom sëñ Fallu sëñ Saaliw ak ñi jiitu sëñ Mudu Mustafa ci laa koy tàmbalee ak doomi sëñ Tuuba yëpp ba ci moslaa ñoom mbirum jàkk ba lañ koy liggéey ci kër gi ci boppam rek moom lañ njëkk a def jàkk fexe ba kër gi jublu xibla nga xam ne comme dañoo bari lu ñu toog ak weer dàq jublu di jublu xibla kër yi ci boppam mooy njëkk a jublu xibla moo tax li gën a xorom léegi sax ci ni ñuy tàmbalee di ñàkk ak di perte suñuy valeur xam naa kër kilifa yoo xam ne boo fa demee tey tabax ya fa kilifa tabaxewoon kilifa kilifa yi tabax yi ñu fa taxaw tabaxoon boo see bu laajte ni xibla jub neel allahu akbar ndax tabax bi la ñuy njëkk a jubale xibla waaye bokk na ci la koroma tabax bi nga xam ne xalaf ñun ñoo ko fay tabax ñaari di leen wuutu tabax yi fi ne nii léeg-léegi da nga koy da nga koy dugg ñun ne déedéet jëmal tuuti ndeyjoor ak jëmal tuuti càmmooñ ndax jublu xibla maanaam loolu ñoom jàkk dañ koo doon loo xam ne aussi fañ ko tegoon ëpp na jëmmi jàkk ci boppam biir kër yi lañ defoon mu jàkk te loolu sëñ tubaab moo ko jëkk ñaan yàlla xam ne danañ ci àgg léegi wajal buyuti kullaha masajida jooju mu wax kon loolu lu am solo la ak yoo xamante ni ci waa fii ci boppam dolli nañ ko ci biir jàkk kon loolu ma tax xam la kon sëñ Tuubaa noonu la daan xeme na moo tax sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana nee na li ko jàkk jaral ba tey rek ngir xam njariñ yi nga xamante ni ci jàkk daana ko juyee rôle bi daan juyee maanaam ci ñun ci waa askan sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana nee na sëñ Tuubaa da koo nett ne ko dafa am bis nee na ma samp ñeenti bant nee na maa ngi ko sampoon ci benn buntu boo xamante ne sii nee na maa nga fële ca Gabon maanaam nee na ñeenti bant la fa mu ko defoon mooy réew ma nga xamante ne sii fa lañ ko yóbbu woon nee na li mu bañoon mooy tubaab yi nga xam ne laa buñ ci fa jaar ak yu demee noonu nee na nag am tey kilifa ga ci boppam xaakim ba ca boppam nee na moo dikk rek daal di tasaare jàkka ji daal di samp bant ya semti daal di sànni ne ko fii kenn du fi julli lislaam amut fii ak yu demee noonu loolu la ko wax nee na ne ko dañuy yàqal suñuy maat yi ñuy def ci wàllu soldaal ak yu demee noonu maanaam da nga yàqal soldat yi nee na sëñ Tuubaa nee na wax na sëñ Mouhamadou Amdi Daga ne ko nag booba damaa noppi rek nee na daal di am ak lewet waaye nee na am na ku fa nekkoon ku ñu wax yéen di sëy nee na moom da di kër di kulóog buur boobu noonu maanaam xaakim ba maanaam kilifa ga moo xam góor nañ la ko tudd wala waali ba wala dara xulóo bu métti nee na ba nit ñi ñoo dox seen diggante waaye keroog nar nañoo dóorante loolu wax na ko ba tey nga xam ne fonk jàkk rek ak fam nekkoon yi dem na sax nga xam ne xaj na jàkk waratu ko fa ndax kenn nit la ak yi demee noonu te nekk na ci loxoy ñeneen teewul ma ngi ko doon bàyyi xel jàkk ba tey nee na ñi nee na mu ne nee nee na nee na yëlli sëy neen dañ koy bàyyi mu def si jàkkaam ndax si yàqalu kenn da ci yoon ci bunt néegam la ko def ak yu demee noonu nga xam ne dem nañ ba nar a xuloo xuloo bu tàng yu demee noonu fekk sëñ Tuubaa mi ngi teel nee na xasida ñi ñuy wax rabbana axrijna min hadihi alxariqi zalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira nee na boobu loolu la doon taalif mooy raditu anil mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnani wa akrim bihi rabba ba àgg ne lahu kub salaatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi waj'al bihi masjidi rahba nga xam ne nee na bay boobu ba mu ci àggee nee na yàlla nag ca la ko nangule nee na ca la ca la ko nangule jumaay Jurbel ak jumaay Tuuba xasida bi kon sëñ Mouhamadou Diop da nee na xasida ba rafet ak yu demee noonu yàlla daal di dogal ñu sëñ Tuuba dikk ba njëriñ ba jumaa ji àgg yéen tey moom mu doon ko xeexal daal di koy dikk nee na mu daal di wax sëñ Mouhamadou Diop da gën a àndal ak moom ngeen dem woon ko jumaa ji bañ àggee woon ko jumaa ji nee na mu yéemu lool ñu jéetee ba mu andi ko sëñ bi nee na sëñ bi ne ko jumaa ji ñu mu demee sama jumaa jooja mu ne ko wute noonu lool ne ko diggante fen ko sow noonu la mel daa mel nee na ngir yéemu gum yéemu nee na sëñ Tuubaa nag foofu la nekk leen ne ko yow mi ma doon xeexal keroog noo gisee jumaa jooju noonu nee na mu ne ko subhanallah bokkuñ dara amuñ dara lañ bokk nee na mu ne ko ci la nekk leen xisa boobu nag daal ne boo gisee mu bind ne nafa li xëyrillaahu fi ma yomba ma saa xal bi ma saa xal bi wa alal jamba nee na ma saa xal bi mooy li na xari woon xolop mooy fàdd bi mu fàdd bant yooyee sempi jàkk ja wa alal jamba nag mooy yëkkati ko soorool yooyee yi am ci Tuubaa ci Jurbel nga xam ne kon ginnaaw moom fu mu mës a dem rek loolu la fay bàyyi xel ci jàkka waaye gis ngeen ku nekkoon ci fu mu mës a nekk ci ñoom ci waxtu yooyu du tal jàkk waaye ànd ak loolu lépp moom gis nga ni mu tal jàkk ak la ko ci yàlla fayee moo tax nga xam ne da ngay xam ne kon dara ji am ak li ma doon jiital léegi jàkk yi dax ci réew meeg yi fi gën a seer ak yi fi gën a jublu xibla loolu it lu mat a bàyyi xel la xam nga loolu ñu bari duñ ci yëngu waaye fi nit ñi jumaa yi murid yi ñoo gën a jublu xibla ci ma jumaa yi ci addina bi laay wax waxuma yi ci Sénégal donc sax waxuma la ak Sénégal loolu yëpp ay cër la yoo xam ne loo gis rek daf caa dolli yeneen yoo xam ne si xuttiya maanaam ak yeneen yoo xam ne si tey ba addina di baax nga xam ne yàqoogut te nit ñi gënoon nañoo xam seen tubaay suñuy jumaa jumaa yi mu fi bàyyi moom moo gën a néew ay conflit xuloo xeex ak yooyu ay jumaam daw ko am addina nag mi ngi tàmbali di soppi ko ndaw ñi ak sama maas bi léegi tàmbali wuñ di leen jàngal sëñ bi te dañuy jàng ci bitim réew di gis yoo xam ne mën nañ fi indi ndax di jàng ay séeréer yi te duñ jàng sëñ bi bu baax a baax loolu mën nay indi ay soppi waaye ba addina yi baax daal dafa defaloon nit ñi defal koo xam ne yi nga xam ne ay benn benn ñëgg ñëgg la li ñuy gis ci jumaa moom ci yeesal gi ñuy yeesalaat jàkk ak l'islam moom dàq na ko bu yàgg muy bëgg jiite bëgg daraja bu njëkk ba addina di baax ba murid di murid saadix dëgg ñun ñi ñëpp buñ dajee ki gën a tuuti mën nañ ko jiital te kenn du ko yëg ndax faaliwuñ loolu waxuma laa nag di jote ak di jàppal ci biir di jàkk loolu lépp lu mu yolli lu mu dolli ci lislaam comme ni mu ci dollee mbirum jublu xibla ak yeneen ak yeneen yu demee noonu kon lu lépp mën na si ko jàpp ci sëñ Tuubaa ba tey moo tax waykat yi ko daan way nee nañ fépp foo xam ne dugg na fa rek moom sëñ Tuubaa moom bu fa ay église amee dana ko soppi maanaam def ko ay jàkk te du xeex du ko defee jeesi du ko defee xol bu tàng du ko defee dara waaye jàkkaam rôle bi mu daan suyee ni ni jàkk nit ñi jàkk dëgg su fa nit ñi dugg te fekk jàkk ma ngay def la mu war a def day soppi nit ci saasa moom jàkkaam noonu la daan def moo tax fépp fu mu mës a nekk rek fu mu tabax jàkk rek yé nga xam ne du mbiri lislaam da ngay gis mu tàmbali di daax fi ne jurbel ñi ko xam xaj na dana gis ci kanam bu ko waxtaanee mat yi insha allah jurbel ci boppam rek ku ne xam ne ne du dëkkub mën ne su koo jàppe dëkkub lislaam comme Touba wala yu demee noonu waaye yóbbu gi ñu ko fa yóbbu moom rek dafa mujj mu daal di changé jurbel ni ko sëñ moom lu mu dagan a waxe mujj dëkk bi doon dëkkub alxuraan ba tey loolu ma nga fa defe naa ne ba tey gis nga ba bu yàggut da ngay gis ne koor na mu fa daan mel ma nga fa ba tey sax l'islam ci boppam rek dafaa yokk ngir jàkkaam jooju noonu xaj na loolu yàlla ñu yàlla may waxtu bañ àggale ko ak kii moo tax am na borom xam-xam bu wax ne wa yuxdibu fi kulli bilaadi sawaamian wa yumiru fi kulli bilaadi masajida falam yurfa illa fi lmaraki'i raki'an walam yurfa illa fi lmasajidi sajida nee na fu mu fekk synagogue yeeg yooyu ñeneen ñuy jaamoo yàlla église yeeg yooyu moom danañ sori loolu nag moom ba mu koy wax sax yooyu xewagul waaye da nga gis ne ñun yar sax dañ xam ko dëgg buñ ma sa fekk ak église rek ci bitim réew yëpp li ñuy njëkk bu rappee li ñu njëkk a def li ñu njëkk li ñu njëkk a taxaw mooy xëy na ko mu doon néegu yàlla subhanahu wa taala ba xam nañ ci njabootam gi suñ ma sa dëkk di ville yi Sénégal bu fekkee ak église dafaa jege li ñu njëkk a def mooy fas yi dafaa jënd jàkk waaw kon loolu it loolu mu wax ne fépp fu mu fekk ak église wala beneen jaamukaay la dana ko ràppal loolu nag waxu ci mu yor ay jaas rek dikk di fitan naan fi kenn jaamoo jeneen jeneen diine li fi am nangam nangam déedéet ña bokkoon ci diine jooje ci boppam moom la leen ni woon diine ju rafet ba ñoom ñuy wàppi di dikk di bokk ci lislaam ci lefeen wu rafet wala ci jub am na bari moom ci boppam kon maa ngi ko nu diñu léegi wajal buyuti kullaha masajida yaa naas man laa yakunu sajida ak wajal buyuti kullaha masajida wa bi bashir man yakunu sajida yooyu muy ñaan nga xam ne ay néegam ci boppam sax daf ceejee da cay xemem mu doon mu doon maanaam ay jàkk comme ni ñu ko xamee ba murid di murid yi nga xam ne dara sotti kooku di defe naa ne kër sëñ su mag képp da ngay xam ne attab jàkkalaate soo duggee dañ koy lay ba set bi mu doon barab boo xam ne foo toog mën a julli dara luy sabe dafa jege comme ni ma ko wax ci mbirum jublu xibla gaal yu demee noonu bara nga gis yu bari sax dañ daan borom xam-xam ak yëpp waaye kër sëñ bi buñ ci mësan a dugg sax dañ bëgg a sol ay dàll loolu sax booba buñ ko gisee dañ koy def yëf yi murid rek jàpp ne nit yoo nga tax ñu di ko def waaye loola kër ga ci boppam moo mujj amee ahkaam yi jàkk ci boppam ba xam nañ ñoo xam ne boo gisee xëy na loolu mënees na ko yemale ko mu doonoon koo xam ne moom sëñ Tuubaa yi xam gi mu xamoon lii ñuy wax ne tey solo si jàkk am tax na daana maanaam digal murid yi maanaam ñii nangoo dem ci biir jàkk yi di fa jullee moo xam waxtu jafe la moo xam waxtu yomb la di tere dox jëm ci lépp loo xamante ne fii dafa xaraam lu mel ne sàcc lu mel ne foog ak jëm ci lépp loo xam ne dañ ko dëgëral moo xam rambaaj la wala dox jëm jeng jëm ci bunti buur yi lu am solo moo nekk ba daana tey lislaam ci boppam nga gis jàkka yi daanaka ci loxo buur yi li nekk bokk na ci yeesalam lislaam moom tey mooy ay jàkkaam du aju ay wasaara ministère ak yu dem noonu du ci aju amul benn jàkkam murid boo xam da ngay gis gouvernement mën laa wax ne la ma ngi fay fay kenn te dara dafa manqué te lépp da nga gis ne seen organisation ak yu demee noonu mooy dundal jàkka ji te mooy gën a dund jàkka joo xam ne sax état dafa am yoon te loolu xaj na dañu gaawantu rek ngir bañ waxtu jot waaye tey jàkk yi boo gisee tey ci lislaam problème bi nga xamante ni fii daanaka waa fii mucc nañ ci murid yi mucc nañ ci te ay arabi saudi fa lislaam bi sax mucc nañ ci tey dara waroon ko dundal jàkk yëpp mu ngi ci loxo nguur yi tey ministre bi day buur bi day fal ku ñuy wax wasirul awqaaf am lu ñu naan wasaratul awqaaf ministère boo xamante ni fii wala ñu ko tudd ñenn ñi di ko tudd wasaratul awqaaf wa suunul islamiyi fi ne imam bi imam imam bi xutba dañ koy bindal ne ko waxal lii wala tey ñu jékki-jékki daan ne tey kat thème yëpp lii lay doon te loolu boo ko xoolee tey affaire yi politique da ciy dugg léeg-léeg luy taxali bi ñu sax da ciy dugg da ngeen gis ci biir yu mag yooyu yëpp tey suñ jékki-jékkee een ab benn communauté rek comme soufisme la wala jamaatu tabligh wala dara li ñu def mooy yéen imaam yi wax leen attaqué leen ñee wala al ikhwan muslimin te fekk loolu politique moo koy lal dëgg la sax ay jullit bu fekkee dañoo def inxiraaf sañ leen dañ sa jàkkee wax kat waaye déedéet léeg-léeg lu laal seen nguur la wala dara rek dañuy saagaloo imaam yi ne leen léegi wax leen gaayee lu ñaaw ngir foofu ñu bàyyi leen kon jàkke yi mu di doon masjidu dirar masjid taqwa nag ni ko alquran waxee la masjidun ussisa la masjidun ussisa ala taqwa min awali yawmin ahaqu an taquma fii ndax fii rijaalu yuhibbuuna an yatatahharu wallahu yuhibbu mutahhirin suñ tubaa yeetal bi yeetal diine da cee am solo lool mooy waral jàkkaam ay ministère ay góor mag yi mënu koy gis te ni mu tegee it buñ ko wàcciw loolu du ci mës a am ak yoon moo tax luñ ne lu ne mën nañ koo xutba ci jàkkaam wax ko fa tamit intérêt l'islam te duñ ca bàyyi xel gouvernement wala yi demee noonu ndax duñ ko financé duñ ca dimbalee ñoom ñoo koy defaral seen bopp ak ni nga ko xamee ba mu àgg moo tax mu doon wax moom muy tere ne la tamshi bi dayni lil xaraami bal bihi nastain ala almarami li ma doon wax ne da daan soññee nan ñu dox jëm ci jàkka yi ne imsi ila almasjidi la ila dunub lazim ibadatan wa ma anha yanub ne da ngay dox ci sa ñaari tànk te bul jëm ci lu araam mukk waaye na ngay dimbali ko ci ñaari tànk yi dox jëm ci lépp loo xam ne dañ koy sàkk nee na na ngay dox nee na jëm ci jàkka yi waaye bul dox mukk jëm ci ay bàkkaar mu ne na nga taxoo ak jaamu yàlla ak lépp loo xam ne wutu na jaamu yàlla mooy ji dagan nga di ko def sa yéene mu doon ak jaamu yàlla mooy wa bihima la tamchiyan illa lima inda al ilahi rusduhu qad ulima kal machi lil islahi aw lissilati aw nahwiha min salihati al millati mu ne bul dox mukk nee na jëm lu dul loo xam ne nee na ak jubam xam nañ ko fa yàlla dox di defar ak bokk defar ko ak bokk boobu wax naa ko ak yërëm noonu yooyu yëpp bu njëkk léegi lañ ko détaché mu génn ci jàkk ji rek waaye jàkk moo daan dox loo mën a gis ak lu demee noonu ci jëf jëf yu baax yi li mu wax lépp ci lu baax noonu wax na ba tey ne wala tasiru abadan illa lima inda lillahi yuqtada wa yu'tama kal masjidi l islahi zaadi l bayni aw masjidin aw masjidin li kaana foofu aw masjidin aw li xadaa day moo tax mag njëkk ñu yaroon xam nañ ci muridi yi mag ñoo xamante ni si bu nawet jotee ñoom fi ñu jaar daan dem jàkka ña du sax ñax maanaam day defoo yoon waxuma mu doon yoonu mag de maanaam ci misaal bu dee am ruq la bari bu ñu dem dem bari bu ñu dem ca jàkka jàkka dikk ixtilaaf ila al masjid maanaam dem ak dikk boobu ak taraddud ila al masjid day tax loolu defoo yoon kon loolu it moom noonu la daan yare moom Sëñ Tuubaa ba tey wax na ba tey ne saarix ila sam'i al adani bi ijtihaad ila salaat yarda anka xayru haad nee na deel dox nee na jëm foo dégg ak noonu nga wujj ko tafarlu ca te bañ a tàyyeel xëy na dana dikk léegi sax am na kilifa gu ko ma sax ne ko waaw mën a woon di toog di noppalu rek yërëm ko lool ci dem dem dikk bi ndax ku néew doole la woon ak demee noonu ne ko ndax diw ak diw ak diw kat ñoom dañoo wut ay ay imma ñi leen di wute ci seen i jàkk waaye tontu la mu ko tontu ñëpp dégg nañ ko xaj na dana dikk mu ne maanaam wane ne nit ñi xalaatuma ko li gën a force ci kaw suuf muy jàkk man ma koy délégué kenn loolu xalaatuma ko loolu wax na ko xaj na dana dikk léegi moo tax mu waxoon ne kon gaawal jëm ci nodd foo ko déggee tafarlu nee na su boobaa moo tax mu wax ci masaliku dina julli sax moom waxut ne ba da ngay bàyyi bañ nodd wala yu demee noonu ngay doog a waaj ñim yar ñëpp ca njëlbéen ga nga xam ne ñun xamuñ leen doomam yu mag yi xamuñ leen waaye ñi ci mujj rek defe naa ne képp koo xam ne ci misaal yaa ngi xool bi ku mel ne question yi boobu yu demee noonu rek nga xam fa dara rek defe naa ne julli ak waat ko ak yu demee noonu da ngay gis ne ñoom moom ni mu ko daan defee sax ñoom ay noddog yooyu boolewu leen ak julli sax foo leen fekk ndax suñ tubaab wax ci masaliko dina ne julli ci boppam ak jàkk boo bëggee foo mën a nekk di teewlu ba ci julli sax njëkk julli da ngay teewlu da ngay doon koo xam ne si julli du la boolee yàlla kese mooy dama doon wax rek fu ñu toll rek attak ñu amee ci jàkk lañ nekk am na ku mu doon wax ne ko ki way lii digal na la ne ko ngay gaaw foo toll jëm ci jàkka ja saa soo déggee ak noonu ne ko saa soo xamante ne si xam nga ne waxtu wi dugg na rek gaawal dem ci loolu ndax loolu ngërëmal yàlla subhanahu wa taala te la nekk sori ak naa feq ca la nekk ndax du fàtte ne saxaaba yi daan wax ne boo gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax naa feq yi di ko xam moom te du ko xamal saxaaba yëpp ñoom dañoo jàpp ne ku dul dem ci jàkka sax di ko jullee ca gaa yooyu nga bokk am na saxaaba bu wax ne nee ne sonnee temps pour njub ci jumaa ji ngay julli ci gee rek dañuy tàmbali di ñaaw teew jox la ba xam ne ngaa bokk ci naan fexe wala déet kon loolu moo tax suñ tubaab fonk woon noonu jàkk am na lettre boo xam ne ñu ngi ko bind maam jënd dafa da ngay gis ne maa ngi lay digal nga farlu ci xamlu ak jàngale ak ci jàng loolu ñëpp ñu ko topp ñëpp dama cee joxe misaal moom rek waaye loolu la leen daan digal ba tey loolu la leen digal jàkkam sax wax nañ ne moom daf daan def ab xaajis maanaam ab barrière nga xam ne jigéen ñi dañuy nekk ci ginnaaw di julli te duñ mën a gisante ak góor yi te booba loolu ñun amuñ ci biir bi si ne booba jigéen ñi dañ daan def ci kër yi duñ julli ji waaye góor ñi dañu daan julli ci ànd ak loolu lépp moom kon te gis nga tey daanaka loolu ñu may jigéen yooyu ci biir jàkk góor léegi lay doog a xew ñu koy def ay étage jigéen ñi di dem ci kaw ak ci dem noonu kon loolu lépp jiitu gum jiitu ñëpp ci xalaat bi ba ci yii muxadimatul xidma di def ay koor yi ñu def ay mawaaidul rahmaan na ko naa leen di tuddee lu lépp sëñ Tuubaa moo ci jiitu ñëpp ba jumaa njëriñ àggee nag la ko tàmbalee xaj na ci kanam tuuti insha allahu taala waxtaan bi danañ ci àgg bu soobee yàlla defe naa ne bu ñu jàngee xasida ba nga xamante ne sii Cheikh Sidiye Babal wax na ko wax ci du Cheikh yi jaamiul barakaat yi danañ ci àgg si léegi bu ko wax waxtu yu matee danañ gis loolu mooy junj bu soobee yàlla wax na moom sëñ Tuubaa ne daan ne mu ne wajaa an wajaa an alxisna min saytaani wajaa an alxisna min shaytaani salaasatun jaada biha bayaani nee na awaluha almasjidu summa saani dawaamu zikrillahi fil azmaani ثالثها تلاوة القرآن بالطهر مع تدبر المعاني ذكرها الشيخ السمرقندي العالم المقدم المرضي nee na nga xam ne sangi sangi mooy citadelle boo xam ne dañ ko daan tabax mu wër ñu ñun ko defee suñuy noonu ci kaw doj dañ ko daan tabax wala yooyu kenn du la mën a bett guddi bu ñu bañoon ku leen di ko détaillé mën a ñoo ko daan tabax mu ne nag sangi dëgg dëgg dëgg dëgg nee na boo ko déggee ci saytaane ba moom du la mën a jaar fenn nee na ñett la bi ci njëkk moom jàkk fonk jàkk te wax naa ko léegi barab la yoo xam ne ay saytaane yooyu dafa dugg loo ko ci defal koy jàppal ne ci lislaam lu mu taxawal ci barab yi lañ ko defaree lim na ci yeneen bokk na ca saxoo tudd yàlla ak yu demee noonu te jàkk nee naa léegi tudd yàlla sax dañ ko détaché waaye ci biir jàkk lañ fa defee ñetteel bi mooy di jàng alxuraan te loolu pour xam ne moom jàkk rapport bi am wax naa ko léegi saxa taalibe ni daan nañu wax ne suñu jàkk bu fi gëntal ku bëgg a jàng alxuraan dem ku bëgg a dem ku bëgg a def lii na def daal bokk na ci yeesal gi ñu yeesal diine yi jàkkaam kenn mënu koo xam ne ba xam jàkk gi ban tariixa ko moom loolu lim lim ci dolli ci la bokk amul mënta am symbole booy gis ci jàkka bu dee ko xam Sëñ Tuubaa moo ko tabax wala koo xam ne dañ ko yar ni rek amul luy dugg am luy wane ne lii ak tarixatul muriidiyya moo ko moom daf koy delloo yàlla rek loolu bokk na ci li nga xam ne it moom ak yeesalam la ci biir jàkk te maa ngi ko doon wax léegi war na masaajid lillaahi jooju moo noonu kon loolu tàmbali di tënk ndax waxtu mi ngi gën a gàtt kon léppam moom Sëñ Tuubaa jàppal ne rek jàkka la woon ni ko sëñ Mouhamadou Amdou Dagana waxee nee na moom bu wuree wuri mooy aw niir amut ak bu niiree bu tàngee ak yu demee noonu nee na loo mën a gis rek dundam gi yëpp diggante jàkka rek la lim daan def toujours yi mooy soññee ne nañ ko teewee nañu dem ci jàkka rek wax na ba tey ne nañuy waaj nee na njëkk waxtu wi di dugg donte nee na waxtu la sax nee na ndax tam xel daal di dir nga xam ne am na koy bëgg a dajeel am na barab barab booy bëgg a dajee ak moom it ndax nee na loolu mooy mën a tax nga teew di si bi julli loolu wax na ko ba tey sëñ Basiiru ba tey wax na lu mel noonu nee na mboolem ay yëngutoom ak ay dalam nee na dafa wuute ak liñ mënoon ci keneen ku dul moom nee na ndax moom nangu wut a jaxasoo kenn te nee na foo ko fekk barab yi ñu jaamoo yàlla rek fa lay sax moo xam ay jaamukaay yi yàlla la wala ay jàkk wala yu demee noonu tax ko gaa yu baax yi ba tey loolu lépp kon mu ne sa ko jàpp ba tey ba tey wax na ne bu dee dem ci jàkka moom dem ak dikk boobu nga xam ne moom lañ xam ci jàkka nee na loolu kenn mësu yëgit moroomam ndax nee na moom ci julli fenn fu dul ci biir jàkk ak yu demee noonu nee na loolu te ba mu ko tàmbalee dafa gënoon mag loo koo tàmbali nee na ba mu doonee ndaw ci zahir la ko tàmbali woon ba tey ci jamonoy waajuram loolu lépp wax na ko ñu tàmbali di tënk ak di ko gën a gaawal tuuti wax na ne am na benn naat bu ko nett moom sëñ Basiru nee na nee na moom laa doon junj léegi kon ne ko daal léegi mënoo won a imam boo xam ne da lay noppal bu ko defee ñu wutale ci jàkka ji li nga li nga toggoo ni mu baree mënoo woon a wut diw ak diw ñu dem deux yi di jël mu ne ko ndax danaa jàpp sama imam ji jàkk mu ma fa mu ma fay noppal ci loolu nee na ndax dem ci jàkka gi di ci sax ndax toon la fekk kooku dañu ko seen diw ak seen diw ak seen diw dañuy yeble ci jàkk de ci réew bi mu ne ana lan laay nekk di ci yëngu su fekkente ne ne la nga xam ne mooy capital jaamu yàlla nee na maa ngi fay yebal nit ñi te mooy julli ci mbooloo ba nee na lan laay am su boobaa mu ne ndax am na lu gën a màgg loolu loo xamante ne fii mën naa caa nekk di ci yëngu wala lu ko gën a tedd bay bàyyi jàkka déedéet loolu tontu li mooy déedéet sëñ Mouhamadou Amdi Dagana ba tey nee na fonk gi mu fonkoon jàkk nag ak soññee gi mu ci daan soññee ngir xam yooyu yi doon wax ak jeesal gi mu ko jeesal maanaam nee na am na bis boo xam ne moom sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci boppam dafa taw taw du méttee méttee méttee nee na nag léegi yàlla dogal def nee na julli si wut nee na mu daal di jaar ci ci ma dëkk di ma seet nee na bi ma ko gisee ma daal di jóg ne ba dem di ko gàttal nee na bi ma gisee daf maa jàgg dama jàppoon naa ne tawat ji weesu na fii nga xam ne moom tawat ji muy wax ba doo mën a dem ci jàkka nee na ni mu ko waxee mooy daanaka koo xam ne dana nem mën a tuta yëngu kooku rek la jàpp ne moo am daal waaye tawat yi nga xam ne moom ay diggante biir bi métti yooyu moom ak yooyu yëpp tawat li ñu jàppee tawat ci boppam nit tawat na ba tëdd ab daal sax te sëñ Tuubaa taxu doon mu jàpp ne moom kooku am na kàtt ndax lam jàpp ne moom mooy tawat ba mënoo dem ci jàkka mooy yow mënatoo dañ lay jàpp di la yóbbu maanaam waxuma sax dañ lay lëng bu doon looloo sax moom du la ko jéggal waaye dañ lay jàpp di la yóbbu ci kaw lan lañ lay teg kon loolu it bokkoon na ci fonk bi mu fonkoon jàkka ba tey sëñ boobu taalif an-nafhatul miskiya nga xam ne mooy al-alawi nee na dana digal murid yi ñu dem ci jàkka yi lu baree baree bari di leen ko xeemem loo nee na am na murid yoo xam ne li mu leen féetale woon ñi ga ñi ñiy berndeel gan yi waaye nee na léeg-léeg bu fekkente ne yooyu lu ci la ñuy yëngu nag ba loolu terelee na dem ci jàkka ja nee na am na bis am ku ko def nee na def na ko kon tey ngaa ñëw dellu fa nga dëkkoon ndax fii ñu nekk kat ku dul dem jàkka du fi dëkk te dégg ngeen xesa bu siiw ba ca sàkket wa ba ñu julli bu ñu ba ñu julli rek xam ne booba ñu ngi ca jàkka ja dégg ngeen dama waxoon dafa naa ne ba ñu jullee ñe julli bi mu doon ba mu dikkee ne wax mooy nañ dajji lépp kon loolu lépp fonk jàkka ak fonk lépp fonk nekkul ne loolu fonk julli dong la waaye fonk julli la ak dafa ko ci jàkka bokk na ci li ko yàlla jagleel ci fonk julli mooy werdoo bi nga xam ne mooy almaamu minallahi taala bi wasilati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci sàrtee ko koy def na nga doon ab dem ko dul jàkk mooy boo koy jëfandikoo te doo dem jàkk di julli te amoo ca ngànt sax sàrt yi te sàrt xam nañ te sàrt mooy loo xam ne boo ko deful la ngay def lu baax bu ñu sàrt julli xam ne sàrt yooyu loo ci def julli ko baaxul kon loolu bokk na ci lim ràññi ko ba tey moo tax benn borom xam-xam ne ne wa fil jamaati salaatun tushtarat ala rijaali duna illatin faqat nee na nee na nee na bokk na ci sart yi nga xam ne ak tariqatul muridiyya nee na moom lañ ci sart nee na ngay jullee ca mbooloo bu fekkee amu ak ràgg wala yu demee noonu moom moom sëñ Tuubaa ba tey wax na ne ahlu tasawuf wa jaa anhum anna xamsan min xisaal tufdi al murida lil wusuli wa wisaal li wusulin wa wisaal awaluha talaazumu awaluha talaazumu salaati fii awaluha talaazumu salaati fii jamaatin id huwa xisnul muqtafi loolu waxoon na ko léegi maanaam nee na waa ahlu tasawuf nee nañ am na juróomi jikko yoo xamante ne sii mooy tax murid bi mën a àgg ca yàlla loolu lu ma ta bàyyi xel la nee na mu faaw day taxaw julli waaye yëmut ci julli kese waaye di ko defee ca mbooloo ma loolu lépp fonk jàkka ak xam njëriñ li mu am ci julli moo taxoon ci tubaab ko di ko defee ca mbooloo ma ndax nee na mooy sanget ñuy xeeñ ci sunna waxoon naa ko léegi sange mooy lan ak ni mu ko waxee ne sange la ci seytaane wax na it xamsu xisaalin tuujibul wusula liman liman ba liman baral furu'a wal usula nee na am na juróomi mbir jikko yoo xam ne dana waral ak àgg ci yàlla yàlla mi nga xam ne moo fi teg furu'a yi mooy bànqaas yi ak cosaan yi awaluha salaatu fil jamaa fa innaha tajurru xayra taa nee na julli nga di ko defee ca mbooloo ma nee na topp yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg nee na looloo ko mën a andi kon loolu bokk na ci la ma wax ba tey yi ci des jërul ma koy wax léegi naa ko tàmbali tëb yi ci jëm ci jàkk rek yi nga xam ne jëmu ci jàkk mën naa di ko tam ndax waxtu waa ngi gën a jege waaye doyluwut moom sëñ Tuubaa ci loolu dëkk bi ñu bari seen i dëkk tubaab yee ñu gëmul yàlla ñëpp seen i dëkk buñ koy sos dëkk boo gis dañuy teg ay loi dëkk bi nii lañ ci war a nekk dëkk bi nii lañ ci war a nekk moom ab dëkkam bu ñu doon wax tey dëkk bi lan mooy dustuur bi constitution bi nga xamante ne sii moo ko teg lan la ñuy wax mooy Matlabul Fawzayni bay duñ gën a siiw nga xam ne mën a sakoto da baytul xat yi daanaka mën na sa ko wala tusbital fii jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa da'ban yaa xakim bay bi fi yooyu di gën a siiw jàpp naa ne yooyu di gën a siiw ci la bokk bu di gën a siiw mooy yow yàlla yàlla nga saxal ci dëkk ba mbooloo moo xamante ne fii nee na dañuy saxal julli juróom te du taxaw mukk nga xam ne ñaan yooyu it ak ni ko ci suñu borom wuy wuy see te li ma doon junj léegi rek état yi nga gis yëpp te tubaab yi yilif leen ñooy ñooy yilifa jàkka jullit ñi ñooy tëj ñooy tijji defe naa ne xew-xew yi fi jaar ñëpp gis ngeen jumaa yi nekk Tuubaa ak daraja yi ñu ci am ndax da bañ jooju noonu amul jenn jàkka joo xam ne dañ ko fee tëj ñoom xallun wasat lañ def maanaam solution bi nga xamante ne sii moo gën a digg doomu nga xam ne léegi tëjuñ bayiwu nit ñi di dugg it ay mbax di yokk ak yu demee noonu waaye fexe nañ bal la tax jàkka jub daal lim ba nga xam ne boo ko jàkka mosaan am ñu ne julli leen ak ma ñu di ko def jàkka yi ci Tuubaa yëpp ak yéen ñi def ci Ndakaaru yëpp yu demee noonu kon loolu yi di lu am solo lool niñ ko xam it maanaam yeesal li ñu yeesalaat ci jàkka li nga xam ne da ko fay fekk ma koy wax muy njariñu jàkk am dafa am ay yeneen yeesalaat yi boppam yu mu ci defaat muy addina moom képp koo xam ne dox nga ci tuuti rek da nga xam ne li ñu woowee dëkk lislaam nga xam ne ci cosaan lislaam ko sañcoon ak fu mu mën a doon nag soo fa demee da nga gis ne àgg na léegi ci addina bokk koog diine donte nag la taxoon ñu sos ko mooy diine tey boo gisee dëkk yi néew ci addina bu dee am na yi nga xamante ne ci tey jàkk rôle bi mu doon joué te sëñ Touba di ko faral di wax te lislaam doon ko wax tama ko doon dund léegi ci ginnaaw tey Touba boo xamee ni lépp yu tëddee ci àddina bi da ngay xam Touba ak jàkka sax ci boppam rek loolu it day beneen thème yoo xamante ne ci yeneen waxtaan la ak yeneen téere yoo xam ne moom ku ci dugg da lay xaw a kii tuuti waaye tey dëkk boo xam ne boo fi dikkee ñëwee na nga dëkk ci dëkk dem ci dëkkub lislaam te doo fa dégg yoo xam ne ay kàddu yu xumba xumb lay doon moo xam ci musique la wala déglu loo xam ne warut wala yu demee noonu tey dëkk bi nga xam ne moom moom la sanc dafa bokk ci yeesal yi nga xam ne yeesal na ko fànn gi ñu waxtaane tey li fii gën a xumb moom alquran karim lay doon tey fu fajal jegee rek da ngay gis jàkk yëpp di tegaloo ay bandi tajwid ak yu demee noonu am na sëñ boo xam ne dafa tabax jàkk yi lii ci Sénégal xam naa ko doomam moo ma ko nekk nee na nag fajar jot nee na ñu teg bànn yi ñuy teg ci Touba nga xam ne lu am solo la ndax day tax nit mën a yeew ak alxuraan ni mu demee nga xam ne jàkk tey day doon maanaam génnukaayu kaddu yooyu noonu te loolu daa am solo am na réew moo xam ne sax l'islam dañuy acté woo ab coup d'état am fa keroog bañ jaaxlee te ku coup d'état bi amagut ak na jaax mën naa fasal maanaam mën naa échec jàkk yi ñu gaaw ubbi teg bànni alxuraan yi yéeme noonu ñooñu nag buñ jiitee lay ëpp lu ñu dem ci loolu di ko delloo waaye fii moom loolu toujours dafiy am am na koo xam ne nekk na ci dëkk bii di ci Sénégal ne bàyyi tabax na jàkka nga xam ne foofa ni ñu wutee ci dëkk yi ci des laa lay wax bandi alxuraan yi di ko tegee dëkk ba foofa fonctionnaire dafa nekk ak yooyu dañoo dajee maanaam dafa am dajee daal dikk daal di ñaan daal ne alxuraan bi daal dañoo bëggoon ñu wàññi ko mu bañ a am ak yu demee noonu ndax nangam ak nangam loolu lépp fi ne da ngay xam ne kon bu njëkk jullit moom boo dee jàng maqamatul xarir ci maqama yu mujj yi sax da ngay gis jàkk ñu ñu melal ca Barta wala Kuufa wala dëkk yooyu nekkoon Irak da ngay gis borom xarir yi dañ koy waxee wane ne jàkk yi ëpp am riir ci guddi gi ci la bokk ba addina di addina jullit jullit dëgg jullit daw seene woo ngeen jumaa di riir waxuma laa nag bu ñu demee ba fajar may nañ ko mu bañ a riir ngir bañ koo yàqalee ne la woon ñu dem ba nga xam ne fajar xat na rek ngir bañ mu biddanti wala dina waaye jumaa yi sëñ Tuuba ak jumaa yi Tuuba nag loolu defe naa ne moom beneen waxtaan la yeesalu sëñ Tuuba ji lislaam ak rôle bi nga xamante ne ci ñu ngi koy suyee ba tey kon loolu it lu am solo la moo tax ña ko njëkk a topp nag ñoom it man may misaal bi sëñ bi rek sax waaye loolu ëpp na moom mën a seen na ko teg nee ñi ko topp rek liñ liggéey ci jàkk liñ ko julli amul ñu mel ni ñoom moo tax bañ ko yóbbee ca Gabon bañ koy di ko tuumaal ak yu demee noonu bokk na ci la sëñ Mbàkke bi sa doon seede ne laa yaarifuuna siwa gisyaani masjidihim aw dabsi alwaaxihim wala wal xasfi lil jaral ni ni ni ni ñi ko topp lu ñu ay ngànnaay ak bëgg a dal ci tubaab bi di complot wala moom mu leen koy digal ndax ñett rek lañ xam mooy dem li ñu njëkk a wax ci ñett yi mooy dem ci seen jàkka dong lañ xam nee na murit booba lenn rek la xam mooy dem jàkk wala jàng seen i alliwoo te booba jàng ay alliwoo jàkka lañ ko daan defee nga xam ne lépp ci biir jàkka lañ wala bay bay yi nga tax ñu koy def ci àll dong lañ ko mën a defee te la tax ñu koy def it mooy dundal lu daw rek ngir mën a toog sàmm sa bopp mën a doo ko sàmm sa diine kon jàkka tax ba tey moo tax sëñ Ibrahima Diop almashar yi wax bay bu am solo moom it ne ruhbaanu laylin masaabihum dalaani lahum fi subhi wal musyi azkaarun wa awraan nee na gaa yi topp sëñ Tuubaa ñu ñett nee na ay labbe guddi lañ labbe guddi boo ko déggee labbe day nekk ci jàkk église yi yoonu ñëw ci àddina nee na ñoom guddi gi nag noonu la ñu mel lislaam nag day bañ ko labbe wul nee na ibtadahuha ma katabnaha alayhim illa ibtigaa ridwanillahi fama raamuha xaqa riayatiha lislaam dafa dikk boole ruux ak jism maanaam di jaamu yàlla lool waaye di liggéey lool ñaar yëpp la boole ak jism war ruux moo tax mu ne bu dee guddi gi daal moom nee na ay labbe dañu doon ca jàkka ya nee na it ay lamp lëndëm lañu woon mooy comme ma sa defal ba samp la fenn noonu mën a formé ci jàkk rek tax na yow fa nga dem da ngay leeral foofu fépp moo tax mu ne guddi ngoon ak bëccëg ci leen rek la ñu nekk ay azkar ak ay awraat te loolu lépp ci jàkka lañ koy def ba tey yatluuna da'ban kitaab allahi summa lahum ila al masajidi tasdaadum fa tasdaad nee na foo leen fekk ña ngay jàng alquranul karim nee na foo leen fekk ña ngay dengi dengi dem ci jàkka jàkk dikk suba ak ngoon maa ngi koy wax léegi ci misaal kon loolu it lu ma ta xam la yeesal bi nga xam ne suñ tuba fekkoon na fi lislaam yeesal ko fi ci bu dee njaareem nag nga xam ne moom fa la nekk lii moom dafa dem njaboot gi daal di dikk xam nam li ñu yore woon ñu taxawal waaye njaareem na mu fa dundee dëgg-dëgg jàkka ak lislaam kenn mënu koo misaal kenn mënu koo misaal ña ko fekkee rek ñoo ko mën di nett li nga dégg ko ci bànn mu xaw laa te ñoom sax duñ ko mën a wax nam demee ndax népp ne loo xam man koo nett dinañ demee dëgg-dëgg waaw li nga xamante ne buñ leen wax fii dara tey ciw langue am ko koy traduire ci beneen langue maanaam buu bi zawk bi moo dikk maanaam bi rek mooy dikk moo tax ku fekkee loola rek boo ko nettalee da nga xam ne boo ko bindee ci téye mënoo ko lii de nam amee woon dëgg dëgg dëgg kon loolu lu lu am waaye ci gàttal sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ne ginnaaw bi ma xëyee niñ tegi xeet rek yi demee noonu waaye njaareem daa mujj doon xadaara islamiya maanaam boo koy xool daal ak ni ñu koy nettalee dëkk yu yàgg yi ñu sosoon nga xamoon na booba amoon na ay junni ak ay Bagdad al Qaahira nga xam ne ay ndaw la yu yàgg ñoo ko taxawoon ak Madinatu Rasuul ci boppam sallallahu alayhi wa sallam comme tolloon da ngay tamit booba jaajëf fa la ko sëñ Touba yóbbu te taxul dëkk bi mu moom ko sax maanaam waaye boo gisee li ma doon wax ci Touba li mu ràññi ko ci dëkk bii li ci Sénégal yëpp moom it mu ràññi ko kilifa diine yi ci Sénégal yëpp mooy xam ne ne quartier bi am ci jaajëf dañ ko féetee la woon nga xam ne kii dëkk conseillé kenn mënu koo moom moom da koo génn ne daal di dénkaane ne bu fi jógee nañ ko yóbbu Touba waat na gars yi dem Touba ñi mën a génn ñëpp mu yebal leen nañ dem Touba xaar ma fa sori sama jumaa ja tuuti bu àggee ñu fay julli ci ajuma ndax bëggoon na ñii ñii fii mel ndax ne mu benn dëkk lislaam bu ko mel bu ñu ko sàmmee muy continué du am benn dëkk lislaam bu koy mën a jot li mu bëggoon mooy mu bañ a def jaareem ndax jaareem boo fa demoon tey lim daan bañ lépp am na fa léegi ci biir dëkk ba doonte mën naa bañ a am ci biir lim moom am titre foncier waaye day am stade day am ay xaanaat yooyu noonu rek yu bëree bëri da koy am yoo xamante ne si maanaam yu def defukaay yu xaraam la lu mu ko moom moom yi bu fa nekkoon bu bëggee def comme ni ko kilifa di yëpp di defee dañu nekk ci dëkk rek waaye bu ñu bëggee tane yenn yi ñu ne leen ah fii kat sañcu leen ko loolu taxoon mu dikk Tuubaa ngir jàkka di ko mën a liggéey di intaaj produire jullit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon loolu li ma taxam la waaye am na xasida boo xam ne Cheikh Sidiye Baba maa ngi ko doon junj léegi naan suñu jàggee li mu wax ne masjidu Cheikh jaamiul barakaati wa mahallul xayraati wa rahmaati mu ne jàkkee sëñ Tuubaa ji day ne ne lépp luy baraka barke nee na foofu mooy dajewukaay ba moo boole barke yi moom jàkk jàkk yi sëñ Tuubaa ji nee na waxal wa ma xallul xayraat lépp lu yiw yi fa la dajee mu ne tuxfaru sayiatu fiihi wa yuttaa zairuhu mudaaxaful mudaaxaful xasanaat ñi fay dem sax yàlla da leen di jéggal seen i ñaw tef ndax inal xasanaat yudhibna sayiaat ni ma ko waxee léegi jàkk moo doon làqukaay bi nga xamante ne si bu nit ñi bëggee génn ci àddina te fekk ñoo ngi dund ba tey fa la ñu daw làqu fa ndax muy néew yàlla yi nit ñi nga xam ne boo génnee ñu yàq la dugal la ci àddina ba nga fàttewaat yàlla ci jàkk lañ daan daw nee na nëbbutoo fa moo tax mu wax loolu nee na ñu koy visité dafa dem day nee na seeni rafet rafet nee na dañ koy ful mu ne ni'ma ma walladi yuridu xiyaaman ni'ma ma walladi yuridu xiyaaman aw xuquufan wa ni'ma ma wal fafaati li ma doon wax ne jàkka mu taxaddidul xadamaat la war a doon maanaam multi service la war a doon jàkk buñ dee julli di ko tëj suñ jullee ba noppi nag daal di génnaat des na moom la seex bi moom moom laay wax ci jàkkee sëñ Tuubaa nee na ab tàppawukaay la boo xamante ni si nee na ku bëgg a taxaw di fa naafila bismillah nee na ku fa bëgg a itikaaf bismillah waaye nee na laajkat yi ñi leen di wooyee xaaralkat yi gis nga jàkka ba tey fa lañ daan séddalee asaka yi fa lañ daan dimbalee ak yama jiite lépp ne amoon na loolu boo xamante ne si daana ko siyee moom jàkk sëñ Tuubaa bi mu ko indi ni loolu xewagu fi booba sax jàkka boo ko gisee daanaka du ko taxaloon ay seng yu xaw a kii lay doon waaye booba moom jàkkaam mel na la pale ay année mille cent vingt nangam yi kon loolu ma taxam la ba tey mu ne in yakun lis salaati lillahi baytan fa huwa baytun aydan li ma silaati nee na bu fekkente ne jàkka la doonoon sasaan moom ñu def ko ngir mu doon néegu bi yàlla li fay jullee de ah jàkka sëñ Tuubaa ji de weesu na lool nee na dem na ba doon jàkka yoo xamante ne si lépp loo xamante ne si ay xéwal la ak lu mën a doon nee na bari dafay bari ci anam yëpp yama doon junj rek ne moom lañ détaché mu génn ci jàkka ji nee na lépp mu ngi ci biir jàkkaam mu ne urifat lis salaati fiihi wuxuutun wallati gayruha min al awqaat nee na julli xam nañ ko ci biir jàkka jooju nee na lu dul julli xam nañ ko ci biir jàkka jooju ba tey ci li nga xamante ne si yu baax la dama ko doon lim ne léegi université yi ci la génne lépp loo gis rek ci la génne loolu jëj ma koy baax moo waxoon naa ko léegi mu ne yuqbilu naasu naxwahu bi qulubin jamaat bayna niyatin ashtaati nee na nit ñi dañuy dëgmal jëm ci jàkkay sëñ Tuubaa nee na ànd ak ay xol yoo xamante ne si nee na dafa boole ay nit yéen yi teqalikoo loolu mooy jàkk dëgg rôle bi mu war a suyee bu ko dee suyee nekkul ne koo gis mu jëm fa rek boo ne ko e loolu ci jàkk ne mu ne la damay julli ji déedéet dana danaan la damay julli ji wala damay jàngi wala damay nangam yooyu ma wax rek yama jiital yépp daan deesees na ko def ci jàkk sëñ Tuubaa delloo si woon nañ jaajëf loolu moo tax beneen waykat ne lahu masjidun ma in tazalu tara bihi muridina bil askari laylan lahum zajal li ma doon wax léegi am na jàkka yoo xam ne nee na doo daj mukk di gis murid yi nee na ñu fay tudd yàlla moo xam guddi la ak di fa mel na kuy sax maanaam lépp ci di def nee na dañ ko fi def ba tey kon loolu bokk na ci li nga xamante ne si mën na sama jaw ak lu mel ne jumaay Tuubaa ak yu demee noonu jumaay Tuubaa moom xanaa na xarit ndax jumaay jaarib bi bokkul rek tamit boppam la jumaay jaarib ak tabax ak lam ca la rek ak li ko jàkka jaral ak ni mu defoon ba nga xamante ne si ci jamonoom nga xam ne boobu ku am ab junni rek mën na laa jàkk ak millionnaire te moom fexoon na ba dajale ci jamono jooju juróomi million te lépp ñëw yàlla kese tax waaye du ay kër yi dëkk wala yu demee noonu loolu it seetlu nañ ko ci moom kon ba tey moo tax mu dénkaat loolu dañ koy def jumaay Tuubaa moo ci toppal waaye dañ koy def ndax mel na ne waxtu bi nga gën di gàtt ak li ci ay xalifaam daje ñu demee noonu ak jàkka ji li mu réalité yi jumaa ji li mu réalité nga xamante ne si maa ngi ko doon junj léegi yooyu yëpp xañ na dañ koy tëj ndax mel na ne waxtu bi jot na day mel ne waxtu bi jot na waaye xaj na bala ngaa xamal ni sëñ Tuba jumaay njaay bi rôle bi nga xamante ne sii daana ko joué faw ni ma ko doon waxee léegi ñi nga xam ne ñoo doon melal jàkkaam nga bàyyi ko xel ba tey te loolu lu am solo la ndax muqaddimatul xidma lii ñuy liggéey defe naa ne day mel ne foofu lañ ko copier rek donte nag loolu xewe woon na demoon nañ ba ku koy def sax jumaa yi ñu fi ndogo wala ñu fi def yeneen activité dañuy teg ne ñii ndax nit ñi fàtte woon nañ ko wax dëgg yàlla léegi la dellu léegi léegi la gën a dellu si bañ koy def ci jumaa yi mag yi ci dëkk bi yëpp ak yi tëñ bi ñu def yëpp ak yi waa kër yi def yëpp waaye boo seetee lii nii ñuy def ma waa itam wax na nii ñuy def ci jumaa yi moom moo ko indi ci Sénégal bii dafa am ko jox sëñ Siré Lo xam nañ ko moom la sëñ Tuubaa daloon ci juróomi fan ci weeru koor bi fële ca Sanoos bi mu fi jógee nag marché di ko sëñ Mbàkke Buso defal di ko jooy nga xam ne moom lay tàgg kon jublu wax ci sëñ Siré Lo ci boppam waaye dafa am loolu ñu ko sëñ Tuubaa doon suyeloo ci jumaa Njaaréem bala nga xam jumaa nag anam ban loolu la doon suyee ci jamono sëñ Tuubaa faaw nga diglu ñi ko sëñ Mbàkke Buso doon jooyee ndax li mu doon liggéey ci jàkk gis nga bi mu ne sir man tazakka wa atala bil ilmi wal adabi al kathir من للمساجد والصفوف في والسخاية في الفطور والباب في فتح وفيه غلغ والإسلال المنير إيه وللأساد في إيرادها عددا كثيرا daanaka foofu bay yooyu rek mën naa cee yem waaye ku ko dégg am jàkka ban rôle la daan suyee jamono Sëñ Tuubaa ak jàkka njaareem ban rôle la daan suyee li mu wax mooy maanaam day jooy koo xamante ne si lépp amoon ci ab xam-xam lay lu baree bare la lépp amoon ci xam-xam ay adab lu baree baree bare la ba tey daat koy jooyal jumaay njaareem ne jumaay njaareem ñàkk na ku rëy rëy rëy waaye sàppe jumaa njëriñ ñàkk na ku rëy rëy rëy kon moom dafa ko doon ay jàkk rek bu mu dikkee sàppe yi mel na sàppe yoo xam ne si ku leen xool duñ sasoo ak yooyu ñu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yu baax yëpp buñu daan julli imam bi balaa wax allah akbar bu ñu xaamee bu taxawee dana gees ci xool sàppe yi ba xam toll na gi demee noonu def naan sëñ imam duñu ne léegi ne gaa yi ci loolu lay sukkandiku kon loolu bu boobaa la nga xam ne loolu cosaan la ci yoonu moo de loolu te Sëñ Tuubaa moo ko indi woon waaye nag li ma gis nañoo sax nga xam ne moom dañoo toll ci waxtoom fi mu ne nii ndax nekkoon ci biirum julli mooy biir koor lim ne man lil masaajidi wa sufu fi wastixaayati fil futuur waaye nag nee na nandal nit ñi ay ay ñam ay ay naan yu neex te xéwali lool ci waxtu koor ana kan moo koy defati loolu loo ciy dégg mooy jàkk sëñ Tuubaa kon lii ngeen di def ñoom ñoo ko ci tàmbali ci njaate loolu nag ma si su dégg ci Sénégal jàkk joo xam ne dañ ko fay def booba ndax koom-koom sax dafa demewutoon noonu jumaa ju seere noonu yi dafa demewutoon noonu jumaa ju mënoon habilité làq lu toll noonu ci ay activités yi yu jëm ci diine dafa amatul booba yu gis nga wasi xaayat yi mooy ak wal futuur wal futuur mooy dox def naa ne loolu rek moom la ñu fii kon suñuy dégg tey ñu ne jëmay sëñ Tuubaa ca Tuubaa digte ba kon Ramadan jàll na ci at yu yàgg yi te xam naa dolli ko bu baax ñu naan mën na ay wenn cinq millions ak yu demee noonu da ngay xam loolu bi nga xam ne sëñ Tuubaa suyee na ko bu baax a baax kon nag waxtu yu jeex na waaye waxtaan bi jeexu waaye insha allahu taala des na def moo xam ne xëy na dana gën a tasaaroo ba ñeneen mën koo jàng ak yu demee noonu insha allahu taala kon dañ ko jéem a tëjee foofu ta daal di ubbe fi ñu tàmbale woon muy santaat ñaanal sëriñ bi nga xam ne mooy lif yi fépp muy sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi yàggal fi njaboot yëpp te dimbali daayira bi ba li ñuy sàkk ak li ñuy dox jëm ci yëpp ak seen i affaire yàlla defal leen ko jërë nga jëf ñoo ngi sant bu baax a baax tey jégalu bi ci baax a ko ne ci mbaaxu yàlla la lépp loo xam ne nag dund na ci ñu jàppe ko suñu ñàkk xam xam ak ñu demee noonu suñu màgg ñu ngi sant bu baax a baax tey gërëmaat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh